Merci de rester fidèle au programme de Walfadjri, la voix des sans voix. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cet entretien exclusif avec euh, le maître Madi Keyan, candidat à l'élection présidentielle du 24 février 2019 et président de la coalition Madiké 2019. Bienvenue à vous, président. Merci de me permettre d'intervenir et de venir inaugurer avec cette belle salle. Permettez-moi d'adresser mes premiers mots à l'endroit de la famille de Sidi Lamine Niass. Je ne saurais pas un moment de ma vie oublier l'action infatigable de cet homme pour la cause de l'islam. Je ne saurais jamais oublier le combattant, le farouche combattant de la démocratie, des libertés et des droits, qu'il a été oublié, qu'il a été. Je ne saurais jamais oublier les sentiments fraternaires et amicaux qu'il nourrissait à mon endroit. Pour tout vous dire, en empruntant les escaliers, l'émotion m'a habité. Aujourd'hui, pour faire honneur à sa mémoire, je suis obligé de la surmonter. Parce que s'il y comptait beaucoup sur moi, il me vouait des sentiments d'amitié, mais aussi d'estime profonde. Pour cette raison, j'ai l'obligation de surmonter mon, mon émotion et de pouvoir participer honorablement à cette émission. Je vous salue tous. Je suis heureux d'être ici à Walfadjiri. merci et c'est partagé face à Maître Madické Niang. Euh, je suis avec mon confrère Georges Nesta Diop, il est chef du desk politique à Walfadjri Quotidien. Bonsoir Georges. Bonsoir Ndeye Fatou, bonsoir euh, président. Et aussi euh, sur ce plateau, nous avons notre euh, grand frère mais aussi confrère euh, dans le métier du journalisme, Serigne Saliou Samb, il est analyste politique et observateur. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ndeye Fatou, bonsoir Maître Madické Niang et bonsoir à tous les téléspectateurs de Walfadjri. Oui.

confrères ou bien collègues ont, ont Alors, au point que certains Sénégalais disent que vous avez été parrainé même par l'APR ou bien la moisse présidentielle. Alors, que répondez-vous à tout ça D'abord, le nom de Madiké est beaucoup plus complet que celui de Maki. Mon nom est plus long. Donc, il ne saurait avoir de comparaison entre les deux. La résonance est tout à fait différente. Premièrement, les raisons de ma candidature. j'ai eu à en faire état à plusieurs reprises. D'abord, ce fut un examen de conscience auquel je me suis soumis. Je me suis dit, Madické, vous n'avez pas le droit, tu n'as pas le droit, Madické, de décevoir cet espoir que beaucoup de Sénégalais placent en toi. Je rappelle que depuis ces deux dernières années, durant ces deux dernières années, j'ai été interpellé régulièrement par les Sénégalais, certains par écrit, d'autres à l'occasion de rassemblements, religieux ou rassemblements d'une autre nature. Mais aussi j'ai été interpellé par des camarades de parti. Cela avait considéré que j'étais dans la meilleure position pour convaincre Abdoulaye Wade d'accepter une candidature alternative. Je me suis lancé avec cette conviction que je pouvais le convaincre, malheureusement, je reconnais avoir échoué. Mais je ne désespère pas qu'il me rejoigne dans le combat. Parce que ce combat, je le mène d'abord pour mon parti, pour prendre en l'héritage du Sénégal, l'héritage du président Abdoulaye Wade mais aussi pour alléger les Sénégalais de nom des nombreuses souffrances qui sont les leurs du fait du régime en place. Parlant de la campagne de parrainage, beaucoup de choses ont été dites. Et comme je suis un homme toujours très proche de sa foi, je prends à témoin le Tout-Puissant. Ce parrainage, je l'ai réalisé d'abord avec des camarades de parti, des responsables du PDS, même s'ils sont restés dans les structures, ont cru apporter leur part à l'édifice que je veux réaliser, l'édifice d'une candidature alternative. Cela m'a donné de nombreux parrains. Deuxièmement, j'ai misé sur le capital de sympathie que les populations nourrissent à mon endroit et je ne me suis pas trompé. De nombreux Sénégalais sont venus de tous les horizons me rejoindre dans mon combat. C'est pourquoi j'ai pu avoir un parrainage très varié qui concerne les régions du Sénégal. Je rappelle, dès le premier examen, j'avais pu valider pour huit régions. Et j'avais pu déposer des parrainages pour les 14 régions et même pour la 15e région, le, donc la diaspora. Mais aussi que les gens n'oublient pas que je suis le seul candidat à avoir réussi à être soutenu par 14 candidats qui ont renoncé donc à leur candidature. Et cela avait déjà réalisé des parrainages. Qu'on n'oublie pas aussi que dans ma base politique, j'ai réalisé plus de 150 000 parrains. Je le répète ici et je le dis tout haut, que le Créateur, le Tout-Puissant m'entende. Pour moi, prendre un seul parrainage de la paix, ce serait la voie de l'indignité et de la trahison. Je suis un homme attaché aux valeurs et je ne saurais rien transiger pour que mes valeurs puisse rester toujours forte à mon niveau. Donc une fois de plus, que les gens aient le courage de reconnaître que Madické est dans le cœur des Sénégalais, Madické est dans le cœur de certains membres donc du PDS et que Madické a été apprécié de manière particulièrement positive par tous ces candidats qui ont renoncé à leur candidature pour le rejoindre. C'est ça, c'est ça la réponse à servir à tous. maintenant le PDS, qui n'a plus de candidat parce que le PDS misait sur qui, a été recalée, donc on peut considérer qu'actuellement le, le candidat de la coalition Malik 2019 compte sur l'électorat d'abord du PDS. Ah oui, ça je vous le dis, parce que la bataille, je l'ai menée d'abord pour le PDS, pour le président Ablaï Wade, mais aussi pour pouvoir alléger les Sénégalais de toutes les souffrances qui sont les leurs. Le PDS devrait naturellement me soutenir parce que je suis toujours au PDS. Aucune instance régulièrement m'en a exclu et des camarades du PDS continuent de m'apporter leur appui. Je peux vous annoncer, vous verrez dans les jours à venir que les ralliements seront nombreux. Il y a deux jours, j'ai reçu presque des pans entiers de la direction du PDS au niveau de la banlieue des adjoints au maire des responsables départementaux m'ont tous rallié parce qu'ils savent de tous qui, de tous ceux qui aujourd'hui sont en compétition je suis celui qui peut demain incarner la vision d'Ablaye Wade et continuer son œuvre politique. À propos, Maître Wade, est-il vous soutient? Maître Ablaye Wade? Oui. J'ai pas bien entendu la oui, question. est-ce qu'il soutient votre candidature Oh, je allais lui poser la question. ce qui importe pour moi, je sais que je suis dans la bonne voie. L'histoire m'a donné raison. Si aujourd'hui, on n'avait pas eu de candidat, on serait obligé de soutenir un autre. Je me réclame comme étant le candidat du PDS, le candidat capable de prendre en charge les valeurs qui ont été toujours celles prises en bandoulière par le PDS. le libéralisme social. Aujourd'hui donc, je suis en même d'attendre que Maître Abdoulaye Wade et les responsables du PDS me soutiennent. Ce serait la voie la plus heureuse, mais je peux d'ores et déjà vous annoncer que nombreux, les masses du PDS nous soutiendront. Partout, au Sénégal et ailleurs, des voix s'élèvent. Demain, par exemple, en Italie, en Espagne, en France, des conférences de presse de ralliement sont organisés pour venir soutenir la cause de Madi Kenya donc euh, je l'électorat du PDS avec ou sans Wade oh je je j'aurais souhaité que ça avec Ablaye mais, mais le reste laissons laissons le temps vous savez euh, le futur le futur ne m'appartient pas. Est-ce est que vous êtes en train de faire des démarches en ce sens-là Parce que si vous voulez que les, euh, les responsables du PDS nous soutiennent, et vous savez que dans cette élection, si le PDS n'a pas de candidat, Maître Wade se positionne déjà en faisant droit, parce que sa consigne de vote pourrait être très importante pour vous ou bien pour un autre candidat qui désignera comme étant donc euh, son choix. Euh, ce qui est important, c'est que à chaque sortie, je n'ai ménagé aucun effort, non pas à des faits électoralistes, pour parler de mon attachement en la personne d'Ablaye Wade pour parler de l'affection et de l'amitié profonde que je nourris à son endroit mais aussi pour parler de ma forte volonté à prendre en charge demain son héritage politique je pense que tout cela devrait permettre à Ablaye Wade au PDS de dire que le candidat à soutenir c'est Madické je disais à tout à l'heure que je ne suis pas seulement le candidat qui rassure mais je suis le meilleur profil la solution pour le PDS en cela donc je serais heureux que le PDS me rejoigne dans mon combat dans quel combat celui de faire partir Macky Sall de ce pouvoir et d'alléger les souffrances des Sénégalais par une nouvelle manière de gouverner qui fera de sorte que tous les Sénégalais soit fier d'appartenir à ce pays. En quoi est-ce que vous êtes le candidat qui rassure? S'il vous plaît, en quoi est-ce que vous êtes le candidat qui rassure? Je suis le candidat qui rassure parce que tout le monde, ceux qui me connaissent savent d'abord, je ne suis pas un homme capable d'utiliser la voie du règlement de compte, la chasse à la sorcière. Je ne suis pas un homme euh, euh d'abuser de mes pouvoirs. Je ne suis pas un homme euh, qui opte pour l'instrumentalisation de la justice. Je ne suis pas un homme qui est habité ni par la rancœur pour la haine. Je suis un homme capable de pardonner. Je rassure aussi parce que les gens savent que j'ai une expérience profonde de gestion de l'État. Dix ans de ministère, plusieurs départements techniques pour atterrir dans deux départements de souveraineté. Je suis un homme qui rassure parce que j'ai un projet de société qui s'appelle Jàmm ak Xéewal. Et ce projet de société prend en compte toutes les préoccupations des Sénégalais. Aucun secteur de la vie n'est oublié. Aucune catégorie sociale n'est oubliée dans ce projet. Voilà en quoi je rassure. C'est pourquoi je ne rassure pas seulement. Je ne le fais pas par nombrilisme, mais je suis aussi le meilleur profil et le meilleur candidat. Oui, à côté de Maître Madiké, il y a un autre fils de Maître Wade. Il s'agit de Idrissa Seck. Il est dans l'opposition face à, au président Macky Sall. Et si le choix de Maître Wade est orienté vers Idrissa Seck Oh, je ne prononcerai pas sur cette question. Parce que moi, je fais ce que j'ai à faire je laisse le soin aux autres de, de faire intervenir leur volonté. En tout cas, je peux vous dire, dire ici que je nourris à l'endroit de Idriss Seck des sentiments fraternels et des sentiments euh, d'amitié profonde. Il n'est pas question que nous puissions aujourd'hui nous mettre dans une compétition ouverte où l'un sera habité par le désir de critiquer l'autre. nous sommes le camp du changement face au camp du pouvoir nous devons avoir pour seule cible Macky le faire partie du pouvoir c'est ça la réalité qui m'habite euh, maître dernièrement euh, des responsables libéraux et pas des moindres ont fait des sorties pour confirmer qu'ils vous ont parrainé Massali et même Babacar Gaye est-ce à dire qu'actuellement il y a des négociations avec des plénipotentiaires de votre coalition et des plénipotentiaires qui discutent malgré le fait que Abdoulaye Wade soit un peu opposé à ça. Non, il n'y a pas de négociation. Parce que ma réponse est claire. Je suis du PDS. Venez me rejoindre. Je ne fais que lancer des appels. Certains n'ont pas hésité, parmi des membres du PDS, à aller vers les autres, les sensibiliser, les faire venir vers moi. Mais aucune négociation ne peut avoir lieu parce que j'appartiens à cette famille et je pense j'ai le droit de dire à ma famille ce que j'avais prévu se réalise. Karim n'est pas candidat. Je suis candidat. Je veux aujourd'hui que vous me souteniez. S'ils me soutiennent, c'est, je dis, c'est la meilleure option que je rechercherai. Et là, je vous dirai, je gagnerai dès le premier tour. Dès le premier tour, parce que j'aurai donc à faire le plein des voix, aussi bien au niveau du PDS, mais aussi au niveau des Sénégalais. Je vous rappelle que Madické lui-même lui-même totalise un de sympathie que personne aujourd'hui ne peut mesurer les Sénégalais me l'ont démontré de quatre cent et quelques mille parrains en quarante cinq jours ma maison n'a jamais désempli mon quartier général ne n'est jamais n'est jamais euh, ne se désemplit jamais tout cela pour vous dire que les Sénégalais viennent de partout tout à l'heure nous parlerons de la Casamance pour ma première visite imaginez l'engouement populaire imaginez combien les masses de, de cette belle région sont venues vers moi oui. tout cela pour vous euh, dire le PDS avec le capital de sympathie mais aussi avec les alliés qui me soutiennent nous arriverons facilement au bout au bout de Macky Sall et je pense que c'est la voie royale c'est la voie royale et qu'est-ce que cette voie va va produire comme résultat demain nous serons au pouvoir Karim Wade va pouvoir bénéficier d'une réparation de l'injustice qui lui a été faite. Il en sera ainsi pour Khalifa Sall. Ils seront associés aux affaires. Je mettrai en place. Euh, oh, mhm. Certains, euh, peut-être pour Khalifa ou pour un autre, il sera. On peut opter pour la révision, on peut opter pour l'amnistie. Mais il faut pas aller vite en besogne. Ce qui est certain, c'est que l'injustice qu'ils ont subi sera réparé. Est-ce qu'on peut rester Dernièrement, pour montrer qu'il est déterminé à vous barrer la route, il a dit qu'il va s'opposer à votre adhésion au c bon, D'abord, je doute que cette interview provienne réellement de Wade. Ah oui? président, j'en doute. Ça peut venir de lui, mais j'en doute. Euh, laissez-moi ne pas développer parce que je ne voudrais pas créer des situations qui vont le feu. Je n'aime pas le feu. Je suis un homme de paix. C'est pourquoi j'ai projet de société qui s'appelle Jàmm ak Xéwal. Mais j'étais déjà membre du C25. Donc personne ne peut me barrer la route au niveau du C25. J'ai participé à la dernière réunion du C25. Je suis candidat. Nous avons aussi un cadre qui nous permet de nous rencontrer entre quatre candidats du changement. J'ai participé à les batailles de l'opposition. certains sont en train de tromper Ablaye Wade en lui faisant croire que c'est Macky Sall et Aly qui soutiennent ma candidature mais eux ont peur de ma candidature je ne vais pas étaler je ne vais pas étaler toutes les mesures dont je suis l'objet pour pouvoir donc amoindrir ma capacité de faire bouger les Sénégalais des mesures fiscales des mesures de tous les ordres

qui considère que le droit à la, à la résistance est un droit légitime. Le droit à la résistance face à l'oppression est un droit légitime. Mais moi, d'abord, ma première priorité, c'est de préserver la paix au Sénégal. Tout le monde sait que j'ai toujours œuvré pour la paix. Combien d'intermédiations j'ai eu à faire Combien de discussions j'ai eues avec des membres de l'opposition alors que nous étions au pouvoir. Mais cela, cela ne veut pas dire aller vers une compromission. Je n'en veux point. Autant j'exige que Macky Sall cesse de provoquer l'opposition. Autant j'exige que Macky Sall arrête la violence qui est aujourd'hui essentiellement instrumentalisée par l'État. Autant nous exigeons cela. Autant j'exige que les pouvoirs judiciaires prennent les responsabilités et arrêtent ceux qui sont dans le camp de Macky Sall et qui instrumentalisent la violence. Autant cela, essayons tous de rechercher la paix pour le Sénégal. Autant j'exige que les règles qui seront celles qui vont nous permettre d'arriver à des élections transparentes, à des élections apaisées, autant j'exige que ces règles soient applicables. mais nous ne ménagerons aucun effort pour que la paix, la paix puisse toujours être forte au Sénégal. Vous savez, le Sénégal, avant d'avoir du pétrole, de l'or, est un pays qui a été apprécié, aimé pour sa stabilité politique. J'ai été ministre des Affaires étrangères dans toutes les rencontres, quels que soient les acteurs, même des acteurs européens ou américains, j'avais eu toujours le droit, le droit à la parole. J'ai plusieurs fois parlé au nom des pays les moins avancés, au nom des pays les non alignés, mais aussi au nom de l'Afrique, à plusieurs occasions, parce que le Sénégal a été toujours considéré comme un exemple. Malheureusement, ce n'est pas le Sénégal de Macky Sall. Ce Sénégal qui est condamné au, niveau de la CEDEAO. o Sénégal au niveau du groupe de travail des Nations Unies. Ce Sénégal qui est condamné niveau, au niveau du comité des droits de l'homme. tout cela ce sont des des actes qui consacrent un recul démocratique avéré c'est pourquoi ma première bataille c'est de restaurer l'image du Sénégal en mettant en place une justice forte et une démocratie de plus en plus mûre et forte. Oui. Alors vous revenez d'une tournée euh, dans le sud du pays si vous devez faire le bilan là vous en pleine campagne électorale avant l'heure parce que la campagne démarre dimanche euh, prochain. Mais là, vous revenez d'une tournée. Euh, c'était une tournée politique ou bien c'était juste pour euh, un peu tâter le, le, le pouls du oui, terrain C'était une campagne de proximité. Vous savez, j'en fais tous les jours. Hier, j'étais à Touba et dans plusieurs localités. Avant-hier, j'étais à Guédiouaï où j'ai tenu presque cinq meetings pour l'après-midi. J'ai été à Bambay, la même chose. J'ai fait la Casamance. de Kolda en passant par chez vous, c'est jusqu'à Ziguinchor. C'est une visite particulièrement positive. D'abord, j'ai eu à rencontrer plusieurs acteurs de la crise casamassaise à des niveaux insoupçonnés. Ils m'ont demandé pour le moment de préserver leur identité. C'est pourquoi j'ai pu circuler librement en territoire casassais. Même en pleine nuit, j'étais dans, dans les milieux les plus reculés. Parce que ces acteurs de la crise caravansale, ils savent que je suis un homme de paix. Combien de fois j'ai eu à m'impliquer pour trouver une solution J'ai eu à travailler avec l'aile extérieure de Koumasane. J'ai à travailler avec euh, l'aile de Salif J'ai eu à travailler avec d'autres factions. Je suis connu en Casamance. D'abord, c'est le premier point. Et je leur ai dit la vision que j'avais pour l'avènement d'une paix définitive en Casamance, ils ont adhéré à Monique. Il n'y aura plus d'intermédiaire. C'est un, c'est un contact direct. Intermédiaire, ça veut dire monsieur Casamance. Oui, monsieur il y en a pour... Non, au-delà de monsieur Casamance, il y avait tellement d'intermédiaires. Est-ce possible J'en ai connu. Est-ce que c'est possible de travailler sans des intermédiaires C'est possible. Ah oui? Il faut simplement avoir d'abord une institution qui s'occupe de ça. Deuxièmement, il faut faire de sorte que la confiance règne. qu'ils savent qu'ils peuvent circuler librement sans être arrêtés. Moi, je n'hésite même pas, je leur ai dit, à venir deux jours à Juguenchor, lancer ce qu'on appelle les journées de la paix et demander à tous les acteurs de sortir de le refuser, de venir à ma rencontre. On a et que j'assurerai leur sécurité. On a eu ces journées durant le régime de Maître Abdoulaye Wade. Oui, oui c'est différent. Avec des accords de paix. Ouais. Mais c'est différent parce qu'avec le président Abdoulaye Wade, il était il avait beaucoup réalisé dans la paix malheureusement au dernier moment il y a eu des personnes qui n'étaient mieux que par les intérêts vous avez vous savez cette crise nourrit beaucoup de personnes il y a eu des personnes qui n'étaient mieux que par leurs intérêts personnels qui ont tout fait pour que ça se gâte aujourd'hui il n'y aura plus d'intermédiaires je vais ça me permet simplement de mettre en place la structure qui est chargée de discuter directement et c'est une structure gouvernementale qui dépend directement de moi. Mon implication en tant que président, si Dieu me permet d'en être, d'être à la tête de ce pays, à ce moment-là, mon, mon implication peut se faire à tout moment. Pour vous dire, donc, il faut aller directement vers la paix. Et la solution, la première solution, c'est de permettre aux habitants de la Casamance d'avoir conscience que d'abord, c'est un gouvernement qui les respecte, un gouvernement qui ne renie pas la parole donnée, un gouvernement qui va exécuter tous ses engagements. Mais, mais le plus important, c'est aujourd'hui des programmes spéciaux pour la Casamance dans son intégralité. La frustration qui avait conduit à l'éclatement de cette crise doit disparaître. J'ai dit en Casamance, je créerai une situation de plein emploi en Casamance. Mais Comment l'ANRAC Avec qui a les été nombreux chantiers. par le régime du président Macky Avec, vous savez, beaucoup de projets tardent le jour. Les, les gens vivent dans la misère la plus totale, dans le dénouement. J'ai été, même à Jiguenchor, nous avons des quartiers qui n'ont pas d'eau, nous avons des quartiers qui n'ont pas d'électricité. Comment cela peut sentir que le Sénégal est le leur Il faut faire de sorte que cela et confiance et, et conscience et la fierté d'appartenir au Sénégal. Pour cela, je leur ai dit, donnez-moi deux ans. Des chantiers vont surgir de partout. De partout. La Casamance a tellement de potentialité pour être un lieu idéal pour l'emploi des Sénégalais, dans le tourisme, dans, dans la transformation euh, de l'agriculture, avec la mise en place de PMI, de PME, mais aussi de grandes industries de transformation pour un développement endogène. La Casamance, avec ses ressources minières inexploitées, peut aujourd'hui aussi être une grande région minière. Autant de choses que nous, nous ne pouvons avoir, premièrement, que par la paix, mais aussi en faisant, en faisant disparaître totalement le sentiment de frustration énorme qui habite les populations de la Casamance. Quand je l'ai dit, j'ai été applaudi. J'ai été applaudi à Kolda, j'ai été applaudi à Sédhiou. En Casamance, j'ai pu aller à Niaguis, à Oussouye. Je remercie le roi de, de Oussouye pour m'avoir reçu. J'ai été Oussouye plusieurs fois, donc partout, parce qu'il me fallait aller partout, aller et revenir chaque fois que de besoin. pour rencontrer tout le monde. Alors, là, là, là, là vous êtes allé en, là, vous êtes allé en, en avion. Vous êtes allé en avion, donc euh, en Casamance. Mais là, bientôt, vous pouvez aller euh, avec votre voiture grâce au pont de la Sénégambie. Est-ce que vous ne pensez pas que là, le président Macky Sall vous a damé un pion Non, non, non, non, non, du tout. D'abord, euh, je suis allé en avion, mais j'ai circulé en voiture. Parce que simplement, vous savez, quand on est, même avec le pont, on ira en avion pour gagner du temps. Le temps est précieux pour la campagne. Chaque jour que l'on perd dans les, dans les longues distances est un jour perdu. Il faut coûte que coûte faire de sorte qu'on puisse euh, exploiter chaque jour. Le pont, c'est nous qui l'avons négocié. C'est une continuité de l'État. Je ne peux pas vous révéler ce que j'ai investi comme effort diplomatique. Le président Yahya Jammeh, il lui est arrivé, s'il suit la télévision sénégalaise, il aimait suivre Walfadjri. Il lui est arrivé d'être d'accord aujourd'hui et de ne pas être d'accord le lendemain. Combien de fois j'ai eu à vivre cela? Il m'a fallu plusieurs commissions techniques, plusieurs commissions mixtes. Il m'a fallu mettre en place nos dispositifs avec le secrétariat permanent Sénégal-Gambie. Tout cela pour arriver à ce résultat. Et c'est nous qui avions adressé la requête de financement à la BAD. Que les gens ne se bombent pas la poitrine. Nous avions tout tracé et nous avions obtenu que les accords soient signés. J'ai un seul problème. Je l'ai posé publiquement. Je n'ai pas eu de réponse. On me dit que le pont n'est utilisable que pour les véhicules légers. Ce serait très grave. Parce que nous avons besoin que le commerce n'ait plus de frontières. La mer était une frontière parce que le bateau avait, des avait une contenance tout à fait li euh, tout limitée. Mmh. Euh, les véhicules qui circulaient perdaient énormément de temps. donc il fallait le pont mais un pont capable de prendre en charge la circulation de tous les véhicules surtout des poids lourds pouvant prendre en charge tous les produits de la Casamance les diriger vers des localités qui en ont besoin et que euh, donc qu'on puisse avoir la même chose hein, euh, la même chose avec les autres régions du Sénégal j'ai posé la question je n'ai pas eu de réponse mais une fois de plus la Casamance la voie royale pour régler le problème en Casamance il faut vite vite vite régler le problème du retard de développement en Casamance il faut vite vite faire taire définitivement le sentiment de de frustration il faut vite que l'État donne une autre image aux acteurs un État qui respecte ses engagements un État qui aujourd'hui fera tout pour que tous les engagements souscrits puissent être exécutés dans les délais précis c'est ça que je leur ai dit. monsieur le ministre eh, en Casamance faire la paix c'est peut-être négocier avec euh, Salif Sadio euh, justement euh, certains acteurs se posent la question comment vous allez traiter ce ce, ce personnage alors qu'une partie de l'armée l'accuse d'avoir tué des militaires euh, une partie de l'opinion dit qu'il est derrière la coupe de bois or euh, il, il semble incontournable qu'allez-vous faire avec lui comment vous allez le traiter vous savez avec Kourouma Sané rappelez-vous Kouma Sané avait fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Quand j'ai rencontré l'aile extérieure, ses camarades m'ont vous êtes un homme sérieux, on peut discuter avec vous, mais la seule condition préalable, c'est qu'on ne peut pas discuter avec un couperet sur la gorge. Il faut que le mandat d'arrêt, qu'on revienne sur le mandat d'arrêt. Mais il faut à un certain moment faire quelques sacrifices. Il ne faut pas aller vers la paix avec des a Je dis, toutes les conférences de paix ont réuni momentanément des gens qui n'ont pas eu les mains propres. Toutes les conférences de paix à partir de crises qui ont été déclenchées. Mais si on se met à faire des a priori, je vous jure, en parlant de Salif Sadio comme un personnage qu'il faut amener en justice pour faire ceci, cela, on n'ira pas loin. On n'ira pas loin. Nous discuterons avec tous. Je dis, aucune faction n'est exclue. Aucun chef de faction n'est exclu. C'est ça qui nous permettra d'instaurer un climat de confiance et d'avancée. Oui, alors maître, vous étiez ministre des Mines. Récemment, on a voté le nouveau code pétrolier au niveau de l'Assemblée nationale. On a le pétrole et le gaz au Sénégal, un nouveau challenge pour le futur président de ce pays. Qu'est-ce que vous offrez aux Sénégalais? Vous savez, le premier problème concernant nos ressources minières et, euh, donc et pétrolières, j'ai décidé dès que je serai élu, de mettre en place une commission qui va discuter avec tous nos partenaires pour la révision de ces contrats. Il y a déjà le COSGAS euh, ouais. Il y a déjà le COSGAS. Oui, le COSGAS peut jouer ce rôle, mais on peut aussi l'élargir. L'élargir. Donc, on va faire de sorte que nous puissions discuter avec non partenaires, euh, nos partenaires pour arriver à une révision des contrats miniers et pétroliers. C'est le premier problème. Le deuxième problème, il faut voir dans tous les aspects, dans ces contrats, aussi bien dans le code. C'est pourquoi l'étude que je ferai pourrait m'amener à reprendre certains aspects de ce code. Il nous faut nécessairement la présence de nos privés je dis si une partie des richesses de ce pays générées par le pays, cette partie n'est pas captée par le privé national, jamais le Sénégal ne se développera. Il faut le prévoir, un pourcentage dans le capital. Il ne s'agit pas de leur donner à titre purement gratuit. Donc un, un pourcentage dans ce capital. Rappelez-vous aussi ce que nous avions lancé comme notion, le partage de production. au lieu de prendre des dividendes, donnons-nous une part de la production. Là aussi, on pourra faire intervenir nos privés pour pouvoir donc gérer et rendre particulièrement bénéfique cette, cette forme. Je rappelle, l'État a l'obligation d'acte, même si les privés n'ont pas les, n'ont pas les ressources financières nécessaires, l'État doit les accompagner. Comment Il faut une garantie de l'État pour leur permettre d'acquérir les moyens financiers pour pouvoir être présent dans tous les grands contrats qui génèrent donc des richesses. C'est seulement à ce prix que nous pouvons aujourd'hui prétendre avoir une partie des richesses au Sénégal et développer l'entreprise sénégalaise et créer des emplois. La création d'emplois ne se décrète pas comme a eu à le faire le président Macky Sall. Il faut mettre en place tous les ingrédients qui permettre que des emplois puissent se créer. D'abord, c'est le développement de l'industrie, l'accompagnement que nous devons faire pour qu'il y ait de plus en plus de structures, de structures industrielles, qu'il y ait de plus en plus de PME, qu'il y ait de plus en plus de PMI. Un accompagnement spécial sera accordé aux PME et PMI parce que ce sont les PME et PMI qui devront nécessairement porter le développement dans beaucoup de pays. Si le Japon a réussi, C'est grâce simplement à des PME et PMI qui ont joué leur rôle dans le développement de ce pays. Il faut que les gens se ramènent à une réalité. La roue, elle existe quelque part et elle tourne bien. Il faut seulement l'adapter au Sénégal. Malheureusement, ceux qui sont là n'ont pas eu euh, euh, l'intelligence de pouvoir le faire. C'est pourquoi dans aucun contrat de euh, dans aucun contrat signé par le président Macky Sall et son gouvernement, on ne verra la présence assez forte de privés sénégalais. Sur ce, point, ce sont allez-vous de... revoir les contrats déjà signés par l'État? Oui, vous savez, ce sont des contrats déjà signés, mais je ne veux pas créer les conditions d'un manque de confiance. Mais aussi, il faut que les gens comprennent que nous avons le devoir de préserver nos intérêts. C'est pourquoi moi, je ne suis pas pour ce slogan de dire un Sénégal, de, un Sénégal de tous et pour tous. moi je veux un Sénégal d'abord pour les Sénégalais ensuite pour tous on ne peut pas fermer la porte à ce dont on a besoin on a besoin de la coopération internationale mais le plus important faisons de sorte que les Sénégalais soient dans tous les grands projets qu'on ne nous laisse pas euh, des choses tellement réduites avec une main-d'œuvre non qualifiée euh, qui intervient des emplois qui ne nous permettent pas réellement d'avoir une grande part de la richesse et de pouvoir développer ce pays. Euh, justement pour rester dans, dans, dans le même siège, euh, les populations de Kédougou, en tout cas du Sénégal oriental, comment faire en sorte qu'elles soient associées aux industries minières extractives Parce qu'on en parle, ils voient parfois des longueurs d'or à la télévision, ils entendent parler de la... Euh, elles entendent, excusez-moi, en parler à la radio, mais sur le plan concret, voilà des populations qui s'approprient davantage, de jour en jour. Vous vous adressez à l'ancien ministre des Mines qui a beaucoup fait dans ce domaine, mais qui n'est pas ce que j'ai fait, est loin d'être parfait. C'est pourquoi je compte en faire plus. J'avais d'abord, dans, les, tous les, dans tous les contrats, demandé à ce que la main-d'œuvre non qualifiée, qu'il y ait un traitement discriminatoire en, en faveur des populations locales. J'avais aussi signé avec les compagnies minière, la mise en place d'un fonds social minier qui avait l'obligation d'accompagner les collectivités locales par la création, la construction de routes, la construction d'infrastructures de santé, mais aussi par l'accès aux services sociaux de base. Il nous faut aujourd'hui évaluer ce qui a été fait. Si c'est insuffisant, il faut aller plus. J'ai entendu les populations de, Sédou, de Kédougou protester et dénoncer cela, ce qui veut dire que c'est insuffisant. Donc, dans les discussions allant vers la révision de ces contrats, nous prendrons en compte leurs préoccupations légitimes. Leurs préoccupations légitimes, c'est de faire de sorte qu'une partie des ressources minières, des richesses générées par les ressources minières puissent leur revenir. C'est tout à fait normal. ces ressources n'appartiennent pas à Kédougou ou à une autre localité, appartiennent à tout le Sénégal, mais les populations de Kédougou doivent avoir une part importante dans la distribution de richesses parce que cela permettrait à Kédougou de sortir de la pauvreté ambiante qui, dans, dans, lequel, dans laquelle, excusez-moi, donc vu cette localité. Oui, maître Madikényan, l'affaire ArcelorMittal est toujours énigmatique et regorge de plusieurs secrets. Euh, quelle votre volonté à éclairer la lanterne des Sénégalais Nous une de le faire. Moi-même, j'ai géré ce dossier. J'avais signé avec Kumba Ressources qui nous avait donné toutes les garanties. Mais comme les choses tardaient à voir le jour, je leur ai donné un ultimatum pour me donner toutes les preuves pouvant me permettre d'avoir une illustration de leur possibilité de réalisation dans les délais indiqués du contrat. Quand ils ont voulu s'adresser à la Banque mondiale pour rechercher un financement, je considérais que cela était pour moi une preuve éclatante qu'ils n'étaient pas en mesure de tout réaliser. D'autant plus qu'ils ne voulait plus d'un projet intégré donc le le, le minerai de fer de la Falémé ne peut se développer qu'à travers un projet intégré prenant en charge la construction d'une voie ferrée aux normes et standards la construction d'un port minéralier qui est en train d'être fait c'est nous l'avions conçu et étudié. Donc, mais aussi qu'on puisse avoir le lien avec les autres pays qui aujourd'hui se retrouvent dans la même situation que le Sénégal. Nous avons le Mali qui a une grande mine de fer. Nous avons aussi la mine de fer de la Guinée. Tout cela mmh. devrait créer les conditions d'un développement, non pas du Sénégal, mais d'un développement au niveau de ces trois pays. Dans quelles conditions Quand Mittal est venu nous voir à Dakar pour dire qu'il était d'accord sur tout et qu'il mettait une enveloppe de mille de trois mille mille euh, euh, euh, milliards dans l'affaire ce qui permettait de couvrir totalement tout le projet et qu'il allait construire un lycée minier à Kédougou et qu'il allait construire à Dakar donc d'autres une sidérurgie et que d'autres filières relatives à la sidérurgie allait être créée dans le domaine de l'enseignement technique nous avons dit que c'était la voie royale mais comme Mittal avait seulement besoin d'être propriétaire de cette mine pour pouvoir avoir Arcelor en Europe il nous a utilisé nous avons porté plainte et nous lui avons demandé cinq mille milliards je ne sais pas dans quelles conditions de cinq mille milliards alors que dans la première phase de l'arbitrage le tort exclusif de Mittal avait été retenu je me demande comment on a pu évoluer de cinq milliards de cinq mille à soixante-quinze milliards nous allons si c'est un dossier classé il ne l'est pas rien ne parlera de classement mais ce dossier va être ouvert et les Sénégalais seront informés des conditions dans lesquelles la signature d'un protocole est intervenue Ça, je vous en donne ma parole. Et nous travaillerons dans cette direction. promesse du a une différence totale. <laughs> Macky, c'est plus court. Madické est plus long et plus complet. <laughs> Ah, pour en revenir un peu, à votre à l'intérieur du pays, Walfadjri a montré des images, en tout cas pour toutes les télévisions, mais des paysans qui font le mbapat. Et croyez-moi, a fait mal. De voir ces paysans qui ont les ar leurs arachides entre leurs mains et qui sont obligés d'aller dans les loumes pour les vendre et pour euh, satisfaire les besoins du jour. C'est la faillite du système mis en place pour la commercialisation de l'agriculture. Vous savez, Macky Sall, c'est quelqu'un qui oublie facilement ses options. Ce qui s'est passé au Sénégal, je ne l'ai vécu nulle part. Un président qui a un projet de société ou un programme qui une fois élu abandonne ce projet de société pour en faire adopter un autre yoonu yokkute et puis Sénégal émergent le président Macky Sall avait dit que l'agriculture serait le moteur du développement et que l'agriculture sénégalaise serait modernisée mais pour obtenir le niveau le plus bas de la modernisation c'est de faire de sorte que la production agricole puisse être écoulée pour cela donc il faut mettre en place un dispositif financier qui permet le financement de la campagne agricole. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Ce n'est pas une bonne chose de vendre seulement des arachides. Il faut transformer l'arachide. Il faut pouvoir en tirer d'autres produits. Il faut en tirer du savon. Il faut en tirer de l'huile. Il faut en tirer d'autres produits que nous pouvons consommer Pourquoi aller acheter le sarvon de Marseille, de Marseille alors que le savon qu'on peut tirer de l'arachide peut facilement résoudre tous nos problèmes d'hygiène? Donc autant de choses. C'est pourquoi je dis, il faut associer à l'agriculture le développement de petites unités dans les localités les plus reculées, mais le développement de grandes unités industrielles pour pouvoir aujourd'hui transformer et produire de, euh, produire d'autres produits dont on a besoin pour pouvoir rendre notre agriculture performante. C'est ça la voie, la voie donc royale pour aller vers une modernisation de l'agriculture. Mais aussi, il ne faut plus dépendre de la pluviométrie. Nous dépendons totalement. C'est pourquoi je pense à une idée que quelqu'un m'a présentée et que je trouve très alléchante. C'est d'augmenter le budget de l'armée, d'utiliser les génie civils pour faire de sorte qu'on puisse partout embraver des terres et que l'eau soit présente partout et que nous puissions avoir partout des forages, des puits pour que l'eau soit disponible, pour que nos paysans puissent à tout moment cultiver. Cultiver l'arachide, cultiver d'autres produits dont on a besoin. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. Les, les produits de l'horticulture ce sont des produits qui marchent bien et qui sont aujourd'hui exportés. Il faut développer cette filière et tant d'autres filières pour arriver à des résultats positifs. C'est ça, c'est vers ça oui, que nous pourrons parler de modernisation. Mais il passe tout le temps à décréter des choses oui, qui ne sont jamais réalisées. Le président Macky Sall a mis sur pied les grandes fermes agricoles. Qu'est-ce que vous proposez à côté Mais les grandes fermes agricoles viennent de chez nous. Rappelez-vous, rappelez-vous les programmes du président Ablaïwad. viennent de chez nous, c'est pourquoi. Mais il y aura, il y aura. C'est-à-dire, moi, la première chose que je ferai, c'est la revalorisation du métier de l'agriculteur. Que tout le monde puisse être agriculteur. Rappelez-vous ce que je dis, ce que Ophé disait à des étudiants qu'il a envoyé vers la terre. Quand les étudiants protestaient, il dit, je vous, envo je vous ai envoyé faire des études pour être de grands planteurs. Aujourd'hui, Beaucoup d'Ivoiriens ont réussi dans ce domaine. Quand vous allez dans une plantation, c'est un intellectuel, d'un niveau intellectuel avéré, qui aujourd'hui en est le propriétaire. Il faut faire de sorte les grandes fermes, oui, mais à condition que ça soit des Sénégalais, qu'on ne soit pas aussi aujourd'hui une terre que les autres exploiteront à notre désavantage et que nous ferons les produits. Je suis d'accord pour des projets qui vont recueillir des, euh, des partenariats entre Sénégalais et d'autres. Mais pour moi, la voie la plus appropriée, c'est que l'État puisse soutenir les Sénégalais pour les amener à être propriétaires ou principal actionnaire des, des, grands, euh, des grandes fermes agricoles. Oui, oui. mais avec le product. Le product, mais finalement, le product, on sait comment... Euh, euh, demandez-leur de faire un bilan. <laughs> Et, je, vous, je, vous, en donne la promesse. Mm-hmm. Product et toutes ces institutions ou je ne sais organisation créée par le président Macky Sall. Nous ferons le bilan en temps opportun. Nous ferons le bilan en temps opportun. Mais aujourd'hui, je souhaite qu'on me dise quelle est la plus ferme agricole en dehors de celle qui existait, qui a été créée un Sénégalais, un Sénégalais est Il faut qu'on ne cesse de nous parler simplement de, de structures ou d'organes ou d'organisations Il faut qu'on nous parle de résultats qui ont été obtenus. Justement, donc, euh, est-ce que vous allez, si vous êtes élu président le 24 qu'est-ce que vous allez faire de tous ces euh, de toutes ces structures là DER TER Prodac CEMU euh, etc. vous savez la CEMU elle est utile mais malheureusement elle a été quelque part un handicap pour donc le développement des mutuelles et pour un équilibre des structures de santé. Nous ferons un état des lieux de la CEMU. Mais au-delà de la CEMU, moi j'ai pour la santé deux mots une santé une santé partout et une santé pour tous il faut partout que nous ayons des structures de santé l'État doit beaucoup investir mm-hmm. tout à l'heure dans l'agriculture il était important j'allais en arriver là au moment où vous m'avez interrompu il y aura minimum de 10 pour cent 10 pour cent du budget et c'est le seuil retenu par donc euh, l'organisation euh, par l'Union africaine pour pouvoir développer l'agriculture dans tous les pays. Au niveau de la santé, la même chose sera adoptée. On fera de sorte qu'il y ait des fonds qui puissent accompagner la mise en place de structures de santé. Rappelez-vous que je disais lors de la présentation de mon projet de société, une dotation spéciale sera allouée aux petites communes à certaines communes éloignées cette dotation sera de 501 milliards 5 pour leur permettre de régler l'accès aux services sociaux de base la, la mise en place d'infrastructures de santé mais aussi la construction d'unités de transformation de petites unités de transformation agricole pour pouvoir fixer les populations dans les localités je dis une fois de plus pour la santé un effort soutenu doit être fait Les Sénégalais souffrent de la santé, d'un manque de santé. Pourquoi? D'abord, pour l'hygiène, on ne fait rien, alors que la santé, elle est essentiellement prévention. Là, je, là, c'est une idée et une vision du président Wade. Nous avons des problèmes d'hygiène. Il faut régler ces problèmes d'hygiène. Mais aussi, nous avons un problème de produits alimentaires. Combien de produits alimentaires aujourd'hui sont vendus sur le marché sans qu'on ait un contrôle effectif sur le caractère tout à fait propre de ces produits par rapport à la santé. Les, par exemple, je vous donne les bouillons. Mais les bouillons sont, sont euh, porteurs, je ne sais de quelle maladie. Il faut nécessairement que, que la direction de la santé publique travaille sur cela pour que tous les produits vendus au Sénégal ne soient pas des produits capables de générer demain des maladies. Oui, maître, excusez-moi, oui. ces bouillons apportent beaucoup de publicité aux médias. Ah, ah, ah vive, euh, aux médias, on dit vive le bouillon. Je ne suis pas, je ne fais pas la ah, guerre ah, des pas, bouillons. Pas, pas, mais je veux simplement avoir la composition de ces bouillons mm. pour que certains n'ont pas hésité. Je ne le dirai pas publiquement à les accuser, mm. je ne sais de quel je ne sais de quel mot les mots sont nombreux mais faisons de ça en tout cas moi j'ai en tant que ministre de la euh, ministre de l'industrie j'ai visité une industrie que je nommerai pas qui produisait des buons mais j'en suis sorti enrhumé tellement <laughs> que c'était infect comme comme odeur l'odeur était vraiment nauséabonde et pourquoi vous l'avez pas fermé non parce que simplement j'ai saisi immédiatement ma collègue des santé c'était c'était une femme qui était ministre de la santé en lui disant je veux que la direction des la direction de la santé publique fasse des inspections et puisse nous dire est-ce qu'il n'y a pas des éléments de dangerosité dans les produits utilisés pour la fabrication de ces bouillons aujourd'hui nous ferons ce travail-là la santé elle est d'abord dans la prévention elle est d'abord dans dans, dans l'hygiène, mais ensuite, ensuite une santé pour prendre en charge tous les Sénégalais, partout, que nous puissions avoir des structures de santé, mais en tenant compte, donc en tenant compte de la localité. Voilà une santé une santé partout et pour tous. Voilà euh, Monsieur le, le Président, euh, un, un, secteur, un de la santé, l'éducation. Euh, euh, au moment où nous parlons, euh, les syndicats CMC Commerce bandent encore les muscles. Et dans l'enseignement supérieur, surtout privé, c'est seulement cette semaine que les étudiants ont retrouvé les envies. Euh, certains disent que euh, euh, tout cet argent-là aurait pu être pour terminer les universités de Diamniadio, de Sine etc. Mais quelle est votre solution à, ce problème de l'éducation du budget national seront réservés à l'éducation. Mhm. elle est importante, elle est précieuse pour un pays qui veut se développer. Mm-hmm. Aujourd'hui, les pays asiatiques sont arrivés à un niveau de développement aussi important que celui d'aujourd'hui mm-hmm. grâce à l'innovation technologique, grâce à l'éducation. Donc, j'ai besoin que la santé soit réorientée. J'ai besoin que euh, qu'on revienne à la généralisation de la bourse et de l'aide pour que tout le monde puisse étudier. Est-ce possible? Mais est-ce possible? Est-ce possible, oui. C'est c'est vraiment possible si nous avons 40%. N'oubliez pas mm -hmm. que nous avons des ressources qui vont prévenir de de, de la décision que j'ai prise de supprimer certaines institutions, il n'y aura plus de conseil économique, social et environnemental, il n'y aura plus de HCT, il n'y aura plus de la Commission nationale du, du dialogue des territoires. Nous, il y a des ressources, mais aussi il y a des ressources que nous allons capter pour le pétrole. Pour le pétrole, il y aura des ressources qui vont être tournées vers les jeunes, des ressources vont être tournées vers les femmes, des ressources vont être tournées vers l'éducation. Je vais mettre le paquet pour que l'éducation soit une éducation performante au Sénégal. Je vais faire l'état des lieux avec les acteurs de l'éducation. Des engagements seront pris et respectés. Je n'accepte pas et je suis ahuri quand on me dit que l'État a signé et n'a pas respecté ses engagements. Nous irons vers un moratoire qui va créer les conditions d'une accalmie et qui fera de sorte qu'il n'y ait plus de désordre dans le secteur de l'enseignement. Voilà, très bien. On va, on va avancer avec la permission de Fatou. Mais là, qui dit Madi Kenya parle de justice. Alors euh, là, la justice est au devant de l'actualité. Alors, si vous arrivez au pouvoir, qu'est-ce qui pourrait changer ah Parce ah, que oui. vous le savez beaucoup. D'abord, au moment où j'étais ministre de la justice, beaucoup de choses ont changé. Comme quoi Je ne vous ferai pas le bilan. C'est moi qui ai réglé le statut des magistrats celui des notaires des huissiers et, de, et de principalement de tous les acteurs j'ai aussi œuvré pour que la justice soit de plus en plus indépendante au moment où j'étais là quand je serai là le président que je serai ne sera ne, ne va plus présider les conseils le conseil supérieur de la magistrature ni le conseil supérieur aussi de la cour des comptes mm. le ministre de la justice aucun je dis aucun Sénégalais qui aura participé de manière active et publique aux activités d'un parti ne pourra être nommé ministre de la Justice. Ah oui? C'est inadmissible. On n'aura que... plus de ministre de la Justice. non, du tout, inadmissible. Je suis complètement outré quand je vois Ismaïla Madior Diouf au sortir, je dis, au sortir d'un meeting, répondre à parler de dossier judiciaire. C'est inadmissible. je dis c'est inadmissible même le ministre de l'intérieur pour moi ne sera pas quelqu'un qui aura à participer publiquement à des activités d'un parti pourquoi parce qu'il commande la police il commande la police il a le commandement territorial enfin une réforme importante va intervenir au niveau de la justice je peux vous garantir qu'avec moi la justice sera réellement indépendante parce que ce sera une réforme d'abord du Conseil supérieur de la justice mais une réforme aussi du secteur judiciaire. Et, et le, pour conseil, que... et le conseil constitutionnel que vous allez en faire Le conseil constitutionnel, il faut simplement, je pense, faire de sorte que ceux qui vont y siéger puissent être élus. Puissent être élus. Comment Élus. Ils peuvent être élus par, par un, corps, par un corps, par un corps que je désignerai, en, acc en accord avec les autres partis. Qui sera indépendant de l'État du pouvoir Oui, euh, non, le corps pourrait être ce sera peut-être l'Assemblée nationale, les députés qui nous représentent, ce sera la société civile, ce sera d'autres, tous ceux qui sont intéressés pour être membre du Conseil constitutionnel et d'occuper des fonctions devront être élus au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Ce sera une démocratisation profonde de ce Conseil. On doit cesser de dire ils ont été désignés par le président, c'est pourquoi le président est capable de les influencer et ainsi remettre en cause et, et la sont, valeur de leurs décisions. Et, qui sont toujours euh, incompétents. Oui, oui, oui, oui, et qui prennent toujours des décisions d'incompétence. Ouais. De ce côté, on va élargir la compétence d'attribution et préciser beaucoup de choses qui concernent le Conseil supérieur de la magistrature, euh, le, euh, le, Conseil constitutionnel. Le conseil. Certains m'avaient proposé d'aller vers une Cour constitutionnelle, cour constitutionnelle mais ouais. je ne suis pas tellement convaincu que c'est nécessaire au Sénégal. Je pense qu'on a besoin d'un Conseil constitutionnel dirigée par de véritables sages, des personnes dont l'honorabilité, dont le, le sérieux ne sont nullement discutés. Pour cela, faisons de sorte qu'ils soient élus. On peut même les faire élire par des magistrats, par tous les, les trois corps réunis. Rappelez-vous, nous avons l'exécutif, nous avons le législatif et le judiciaire. On peut composer un jury à part de cela. Ce n'est pas la peine qu'un président puisse les désigner. En France, oui, les présidents le désignent. Mais ici, comme la suspicion est tellement profonde au niveau du Sénégal, pour rétablir l'honorabilité et l'honneur de ces personnes, faisons de sorte que ces personnes soient élues, non pas désignées. Oui, et les prérogatives du procureur Les prérogatives du procureur, oui. vous savez, quelqu'un m'a parlé d'un procureur qui serait, qui est un procureur qui serait indépendant du ministre de la Justice. J'ai dit, il y a un danger. Il peut être un procureur justicier capable de prendre toutes les décisions. D'abord, il faut encadrer la détention. Dans quelles conditions il peut permettre en détention, prendre un mandat de dépôt. Et deuxièmement, il faut que le lien hiérarchique demeure, mais il faut l'encadrer. Comment l'encadrer Quand le ministre donne des instructions, il faut que ces instructions soient écrites et langage. Quand ces instructions aboutissent à des, à des rejets de poursuite, à une ordonnance de refus d'informer, il aura compris que ce ministre, il vient de, de faire l'objet d'un démenti sanglant. Et il, pouvait, il pourra en tirer les conséquences de dire j'ai commis une erreur grave pour faire poursuivre une personne et que la justice ne m'a pas suivi, je dois en tirer les conséquences. Je dis une fois de plus, c'est encadrer tous ces pouvoirs. Chaque pouvoir qui peut générer le plus petit excès doit nécessairement encadrer pour que ce pouvoir puisse réellement jouer son rôle. Oui, en parlant de pouvoir, les corps de contrôle sont logés au palais. Est-ce que vous allez les faire sortir Il faut les D'abord, je crains le lien le plus important. Vous savez, chaque ministère a une inspection financière. Il faut que ces inspections financières ne dépendent plus du ministère, soient directement rattachées à l'inspection générale d'État, qui à tout moment pour avoir une photo de ce qui se passe dans les ministères. L'inspection générale d'État doit avoir la possibilité de pouvoir saisir directement le procureur, la justice, quand il y a des faits délictuels. Il faut créer les conditions d'une indépendance des corps de contrôle, mais aussi les réunir auprès d'une structure pour qu'il y ait une possibilité harmonieuse de contrôle. Il y a le ministère de la bonne gouvernance. Il y a le ministère de la bonne gouvernance, il y a si je ne me trompe, de la justice, non des finances, mm. avec euh, la CENTIF, il y a ceci, cela. Je pense qu'on peut, plus, on peut aller plus haut vers le, vers le Premier ministre pour rattacher tous ces corps, pour que nous ayons une action harmonieuse. Oui. Salut. D'accord. Alors donc on va passer au Wolof, à la version Wolof euh, de cet entretien exclusif accordé par le candidat le président Madické Niang président de la coalition Madické 2019 euh, mbokk yi xarit yi euh, déglu ak seetaan seen rajo télévision Walfadjri dal leen ak jàmm ci débat spécial bi nga xamante ne ñu ngi ko sekk ak maître Madické Niang di njiitu coalition Madické 2019 samp ndëndëm ngir wote présidentiel yu ñu dëgmal ñaar fukki fan ak ñeenti weeru février bi ñu jëm Euh, président ñu nuyu la dalal la bàyyi la nga nuyoo ko ñi ñuy seetaan. maa ngi leen di nuyu ñëpp di nuyu sénégalais yëpp di ziar xalif généraux yëpp rawatina sëriñ Mountakha Mbacké ak sëñ mbay Sy Mansour ak xalif généraux yëpp te di wax ni bi may ñëw fii tànk bu ma seqi sama xel dafa dem si sama xarit ba sama doomu day Sidi Lamine mu fi jógee ba tey tey laa fee soog a teg tànk muy jàmbaar joo xam ni xeexal na lislaam xeexal na yoon xeexal na démocratie kon war nañ ko sargal sénégalais yépp maa ngi leen di wax ni ñaanal ko jàppale wal fajri dana nekk loo xam ni dana doon njukkal liñ koy jox en tout cas mën du ma jug si ñaanal ko te maa ngi wax wal fajiri lu ma man pour doon pour jàppale leen nekk seen partenaire danaa ko def parce que wal fajri tey li ko Sidi li ma Sidi daan wax ni wal fajri moomatuma ka sénégalais yi ñoo ko moom néew ju doole yi ñoo ko moom ñi nga xam ni kenn mënul dégg seen kenn mënul dégg seen naqar ñooñu ñoo moom wal fajiri kon nañ si jàpp ñun ñëpp rawatina nag état bi nan leen jàppale bu baax ba wal fajiri continuer liggéeyam du waxu propagande lu ma gëm sama biir xol la te ñëpp xam sama digganteeg Sidi benn quatre avant yàlla dogal si moom si moom waxtaan nañu mu am yéene yu bëri si man moo tax bi may ñëw fii dama ni war naa fi wane xam-xam ak xarañ goo xam ni fa mu nekk dañoo doon mbégte si moom parce que Sidi daf moom woolu woon doyloo ma pendant plus d'une trentaine d'années maa doon avocat wal fajri ñu jaar fu bari kon Sidi yàlla na ko yàlla jokk leer yàlla na yàlla taxawu njabootam taxawu wal fajri ba fi mu ko bëggoon àggee ngeen àggale ko fukaraaw amiin euh, maître nag da ngay jàkkaarloog ñetti taskatu xibaar man mi ak sama naataango Georges Nesta Diop jiite desk politique ci Walf Quotidien Georges ma dalal la nuyu la bàyyi la nga nuyoo. maa lay nuyu Ndeye Fatou nuyu tamit euh, président Mak Madické Niang di nuyu euh, sëñ Saliou Samb di nuyu tamit ñi nga àndal. waaw moom sax introduire nga ko muy suñu grand Serigne Saliou Samb nekk ci presse waaye itam doon xeltukat ci wàllu politique. di analyste ak it observateur Serigne Saliou ma nuyu la dalal la bàyyi la nga nuyoo. Ndeye maa ngi lay fay di la dalal di nuyu maître Madické Niang di nuyu mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi seetaan ak di déglu Walfadjri tey continué di ñaanal si Léone Niass yàlla doole yokk leeram amin euh, ñu dooree waxtaan wi ak góor ñi bi la yoon moom jigéen moo leen xàllal yoon wi ma bàyyi leen ngeen xuus ak maître dooree ko ak Georges. waaw euh, président Madické <coughs> yow candidat euh, yaa tudd. président coalition Madické 2012. tur bi xaw a niroo trop ak. 2019 2019 tur bi xaw a niroo trop ak euh, Macky 2012 xanaa yow euh, ngay samp seen dënd xalaatoo tuuti si beneen tur bu ñu bu ñu bu ñu weesoo loolu maa ngi ñëw rek boobu introduction la euh, Sénégal yu bëri dañoo dañoo da nga bett Sénégal yu bëri sa candidature parce que kenn xalaatul woon nga nekk candidat am na sax ku la doon tooñ si réseaux sociaux yi nee na Madické daal mooy élève boo xam ne alors du dem école waaye jékki-jékki examen rek mu réussir. d'office parrainage boobu dafa jaaxal ñëpp bi nit gaay gaay ne sax Macky Sall xam naa def la may ay parrain waaw jërëjëf dikke moo dàq ma <laughs> Madické moo gën gudd Macky te du man rek maa def loolu Idi par exemple Idi 2019 la tudd. ah Idi dafa yàgg sa affaire yi. dama ni Idi non dama ni ñi tudd seen coalition ah, seen bopp lañ ko tuddee. Mm. ano Idi moom gën yàgg si affaire yi mais dama ni du ma Madické rek a tudd Madické 2019. Mm. Idi aussi mi ngi tudd. idi 2019 te wax dëgg yàlla sama tour moo gën gudd moo gën complet moo gën neex dëgg <laughs> Macky kon man ak Macky yamunu foofu mm. euh, ni ma dikkee wuuteeg Macky noonu laa wuuteeg moom si lépp mm. waaw kon dama bëgg foofu leeral ñaareel bi sama candidature yàgg naa si wax tey laa see mujj wax ndax leeral naa si lu bëri man tëbuma rek ni candidat laa ni lay ni candidat la ni cëpp ni candidat la dafa am fu ma jaar ñaari at yëpp sénégalais yi dañu buur sama nopp ak il faut nga doon candidat Karim du dem te suñu amul candidat dana metti kooku waa PDS ma ko doon wax ñenn ñi sénégalais yi ma gëm am fu ma teg yow yaa mën yor Sénégal ndax nitu jàmm nga yow nekk nit koo xam ni doo fayonte nit koo xam ni ku bëgg yoon nga nit koo xam ni bëgg nga waaw góor bëgg nga liggéeyal Sénégal il foog nga doon candidat bu loolu amee may muñ ba bés bi nga xam ni wóor na ma ne ma candidature Karim mënatul jàll mooy bi cour suprême dogalee ci la bind Ablaye Wade waa PDS dañu wax yaakaaroon ni ni ma demeek Ablaye Wade su diggante ni mu xóotee ni ma demeek Karim ni ma demeek ñëpp man rek maa fi mënoon tëb ni damay yëkkati candidature alternative ni te bu leen fàtte ni ba veille bi cour suprême di wax wax naa Sénégal yëpp di ma dégg sama candidature du du su fekkee ni bu Karim jàll na damay jël sama candidature teg ko si suuf defe naa ni amul preuve de loyauté amul dëggu bu ma bu gën bu ma wane bu ëpp loolu nan laa def ba am ay parrainage waa PDS bu leen fàttali ñoom seen bopp ñu bëri ñëwoon nañu du ma wax ni ma door toog croiser les bras bañ doon candidat naam toog nañu si biir PDS parce que am nañu jafe-jafe tëb noonu fekk si ma mais ñu bëri fekk si nan ma ñenn ñi ñu ma fekk siwul indi nañu ay parrainage yu bëri jox ma parce que ñu bëri gëmoon nañ ni yàlla rek moo man yeewu soppi situation bi ba Karim doon candidat waaye ni yëfi doxale pour mu doon candidat dana jafe parce que gars yi dugal nañ ko si gutta gu jafe goo xam ni dana jafe génne bu leen fàtte ni aussi man it dafa am nu ma mel si sénégalais yi ba ma ba ma doonee koo xam ni mi ngi jëflanteeg sénégalais yi ba tey ngeen fukki at maa ngi dox jaamu maa ngi jàppale sénégalais yi bu ma nekkee ci nguur amul benn sénégalais bu ma dab ni ma ma dikkee xañ nga ma sama do xañ nga ma sama yelef wala jaay nga ma doole sénégalais yi am cofeel bu nu am ci man moo tax bi may tëb di yëkkati ak kan tëb ni damay yëkkat sama candidature si quarante cinq jours yi desoon si parrainage booba dama ni woon naa ko teg rek si fi ma tollu Sénégalais yi bul fàtte ni aussi man maay benn candidat bi nga xam ni yëkkati na candidature am quatorze candidats yoo xam ni ñu ngi woon si langue bi ba commencé parrainer ñi amoon nañ parrain yu bëri ñoo ñëpp bàyyi seen candidature indil ma ko bu xam ñaata parrainage lan ma indil loolu aussi bu ko fàtte li nit ñi di wax dama jàngul école rek tëb tëb réussir dama làq woon di jàng téere yi gën a kawe ma jàng ko bokk sama xam-xam toog di nag ba examen jot ma wan leen ni man ko war man réussir la am na ñuy tuddoo ni Macky Sall jox na ma pare damay jël yàlla rek def ko seede man loolu su amoon gàcce laay ab du ma mën toog fii te man nit koo xam ni lu gàcce nekk dama daan wax sama sëriñ sëñ Saaliwu ak sëñ Moustapha Massamba ñaanal leen ma teraanga lu mu rëy rëy te ànduloo sama dignité dara bañ ka faxas yàlla yàlla teraanga bu ñëw ànd ak sama dignité mu nar ka faxas lu mu rëy rëy bu ma si jot man rus naa Macky di ma jox diggaale wu ma ak Macky lu may jox parenage diggaale wu may jàppale bés bu mu amee te kenn mën si génne preuve bés boobu jarul may dem élection na ñëpp wane ni ma di que trahir na peuple sénégalais te man xaw ma nan la noo waree pëpp xaw ma nan la noo waree nit kon loolu yëpp ay waxuñu seen ay waxuñu jaaxle la fi ma jaar làq sama ruq di jàngal ba mokk examen ba am ma ñëw raw leen te ñooñu nag di jàng ñii di jàng ay ñaari at ñi jàng ñetti at ñu ñëw ni leen mokkalu leen loolu mooy lu jaaxal nit waaye nag nanu gëm yàlla xam nga yàlla lu mu dogal si jaam kenn mënu ci dara dégg nga fi dina wax lu jot yomb ba mu jotee rek yomb na si man ma def ko ma amee ko ni mu bë ni ma ko bëggee. très bien jàng nga mokkal yaa ngi doon jàng. def te du yem foofu de. Euh. incha allah. Hmm. suñu yàlla defee ñu demee ñu dem fii. 24 février daa gis su ma njattul waa ji. <laughs> jëmale ko deuxième tour su ma ko njattul dóor ko suuf. Euh. danaa ko yóbbu deuxième tour. su neexee yàlla. da nga dendoon nag kàngam ci wàllu politique borom xam-xam muy maître Abdoulaye Wade. oui xanaa ci moom nga tànqee. ah mais Abdoulaye Wade li ma tànq dafa bëri. xam Abdoulaye dama ko jege. Hmm. dama ko jege ñuy bokk presque fanaan du wax ba xaaju guddi di yeen dooloo di def lépp li ma jàng si Ablaye dafa bëri moo tax man waruma def faute politique parce que dama jàng lu bëri gisuloo li Massaly wax ma déglu ko si seen rajo bi nee na ma dikkee am na raison suñu ñëpp tey su fekkoon noonu amuma woon parrainage te wóoru ma woon ni du ma am parrainage wóoru ma woon ni du ma am parrainage du ma yëkkat sama candidature parce que boobu faute politique laay def loo xam ni damay taxaw def la le Jospin defoon si France mooy wax sénégalais yi dem naa mënuma dem bàyyi naa politique maa ngi defi la leen waaye alhamdulilah defuma faute politique tudd nga léegi Massaly Massaly jéem na wax moo ko Babacar Gaye suñuy ay kàngam ci parti démocratique sénégalais ne ñoom parrainé nañ la jox nañ ay parrainage loolu ay ce que li muy tekki mooy yow fu yaa ngi nekk di waxtaan ak ñoom waa PDS pour wala ëllëg euh, wala déet mais bëri na si ñëpp si waa PDS ñu ma seet si ñu may seet si ñuy wax ak man ñoo xam ne ma suñu teqalikoo ñi ngi wax fu nu toll lool ñii ñu bëri indil ma parrainage li ma indil si parrainage xamul nu nan la toll. kon yéen ngi waxtaan waaye li ma sama allié yi indil indil aussi kenn xamul nu la toll. Touba rek jëlee naa fa cent cinquante six mille parrain moo tax man may daal bi nga xam ni région régions yi déposé naa fa parrainage dama si dépensé nag lu bëri sama poche la amul kenn ku ma financé. ci naka da nga fay ay parrainage wala. dama dama nan laa ko dépensé mooy wut ñu ma demal fépp. jox leen ay moyens parrainage dafa laaj ay moyen de transport hmm. kenn toogul sa kër ñu lay parrainer da ngay wër si marché yi da ngay wër si kër yi ak yëpp dama leen jox ay moyens ñu développé bi du benn parrainage bu ma nangu jënd man duma ma jënd dara mais dama fekk nit ñi ñu wër Sénégal ma yónnee leen partout ñu dem fa jël ay moyens ñiy jël ay Jakarta ñiy jël ay oto fu nekk ñu dem fa noonu la demee yàlla ak may dégg noonu la demee ba ma man am quatorze jours même même à l'extérieur dama yónnee ñu ma wutali parrainage yónnee naa partout ba nu indil ma ay parrainage moo tax déposé naa parrain parrainage ci quatorze régions validé naa ci juróom-ñetti région nga xam ni kon ma Madické tey envergure nationale am nekk na loo xam ni kenn du ko werante waxtaan wi waa PDS nag am na wala amut yéen ngi waxtaan wér wala déet maa ngi waxtaan ak ñu bëri ci biir PDS mm. ñu bëri pare nan ma rejoindre barki démb rek ci ay adjoint maire ay responsable départementaux ñoom ñëpp rejoindre nan ma ba ñu ngi préparer def seen déclaration si yeneen i dëkk aussi ñu bëri rejoindre ma même si diaspora bi suba rek am na benn conférence de presse ñetti conférence yu am benn Italie benn France benn bi États-Unis pour ñoo xam ni dañoo déclarer publiquement ni rejoindre nan ma man maa leen tàllal sama loxo mm-hmm. ni leen xeex bi may xeex PDS laa koy xeexal xeex bi may xeex Abdoulaye Wade laa koy xeexal xeex bi ma koy xeex pour réparer injustice bi quand même Karim Wade subir xeex bi may xeex mooy réparer injustice bi Khalifa Sall subir xeex bi may xeex mooy faj coono bi Sénégalais yi nekk ndax régime bi coono kese la Macky Sall coono ak fitna moom la teg si dëkk bi yaa ko tudd maître Abdoulaye Wade ndax jàppal na la tànk ci lii ngay dëgmal euh, xam nga man wax naan moom dem seeti ko wax ko li ma bëgg yónnee naa ko ay mail li si des nag vraiment du ma ko wax fii damay bàyyi Ablaye Wade am liberté wu wax man daal def naa sama warugar. waaw moom dafa mel ni wax na sax sama warugar. Ablaye Wade dafa mel ni wax na sax barki démb ci benn waxtaan bu ñu wax ak ay journaliste def li mu mën ba doo dugg mbootaay gii di C25. booba bokk naa si mbootaay bi ba pare bi mu koy wax te barki dem rek laa jóge si réunion bi ñaareel bi mooy gëmuma ni Ablaye Wade moo wax wax jooju. Mm-hmm. du ma si xóot parce que moo ma fi nekk di jéem taal daay wala di ñëw di xamb Euh, daay bi li may def daal mooy man tey gëm ñëpp gëm nañ ni PDS laa fi nekkal ñëpp gëm nañ ni sama xeex mooy jële fi président Macky Sall ñëpp gëm nañ ni mooy su ma amee ndam ndamu PDS la ndamu Ablaye Wade la ndamu peuple sénégale la loolu laay wax te tàllal naa loxo sama naataangoo yi ma nekkoon ci PDS yëpp tàllal loxo képp koo xam ni danga bëgg tey Macky Sall jóge fi bëri na nag ñu ma wuy si fii nu toll lu mu bon bon am naa plus de vingt partis yoo xam ne ñu ngi ñëw na muy sinam si diggante bii rek ñu sama candidature ba mu validé ba tey amagum naa lu ma juróom benn juróom benn parti yu ñëw mouvement yi nag xaw ma nan lan toll foo ko to foo ko natt rek weesu na kon man wax dëgg yàlla war naa sant yàlla gëm ni maa ngi si dëgg te nag bañ nag topp di tontu ay wax yoo xam ni waxu yu amul solo la wax ju ñaaw la gis nga baatu gannaaw ñëpp a ko am de ba nu yàlla bindee ba tey mi ngi jëkk si gën gi mbindeef te moo gën ñëpp yàlla moo tax mu sàkk ñëpp mu ngi jëkk si sama sang ba Cheikh Mat Bamba kon nanu bàyyi baatu gannaaw dëggu si lu noo def dëggu mooy tax ma am ndam fi ma jëm bu leen fàtte ni dama leen bi gars yi di jàng si école yi man am naa livre yu mag ba mokkal ba ma ñëwee ba waxtu tëri jotee ma tëri raw leen te ëllëg noonu lay demee incha allah. waaw maître ëllëg boobu sax Georges nga baal ma ndax da ngay setal wecc Karim Wade ak euh, Khalifa Sall maanaam amnistie leen léegi kay na ni Karim Wade yàgg naa ko wax may avocat am dañ ko war setal wecc mm. nan kay defee nag danoo xool mën na doon révision du procès mën na doon amnistie mën na doon leneen ak leneen aussi Khalifa ñëpp xam ni procès dañ ko waroon annulé nekk laa si daj assemblée nationale parce que. dañu violer ay droit am nit ki mënuloo violer ay droit ba pare condamné ko kon loolu jaadu na ñu réparer injustice yooyu li yam foofu bëri na injustice yu président Macky Sall def yooyu yëpp daan ko réparer doxal ko nag si yoon ñooñu ñu seetal leen ba pare ma tàll loxo ñëpp may ki nga xam ni wax naa ni quelque que soit ñi ànd ak man ma gagné gouvernement bi danaa ko yaatal bi ñëpp man si bokk waaye nag du gouvernement Macky Sall de ay quatre ministres ak yooyu kooku ma di ko ñaar du si dugg gouvernement boo xam ni def euh, mënaguma annoncer chiffre mais defe naa man li ma bëgg daal te di ko doxal mooy gouvernement warul dépenser ban cinq personnes lu mu bëri bëri. war na yem si trente personnes loolu la président Macky waxoon. ah waaw yëpp xam man du ma président Macky parce que ma wax waxeet yàlla na ma si yàlla musal. man man dama gaaw rus xam nga ko gaaw rus doo doo duñ ko wax yaa ko fi waxoon ñëpp xam ni nii ma mel ku ragal gàcce laa yaa ko fi waxoon fu ma ko waxee rek. booba am naa gàcce moo tax lu may wax sénégalais yi danaa étudier dana nekk maximum de vingt cinq à trente du ko weesu ministre conseiller pour man danaa si revenir ba nga xam ne dootuñu doon ay ministre conseil ay conseiller président lañu pour ne pas ñu am loo xam ni dafay diis si fonctionnement wu état bi dañ koy limiter te aussi conseil des ministres ku dul ministre bu yor cër mooy nga yor ministère di ko doxal doo fa toog soo gisee seen conseil des ministre bi dootu la xam kan mooy ministre nangam kan mooy ministre nangam ñëpp di fa toog yooyu yëpp dañ koy dañ koy fexe bu jug fi leneen lay fexe bu jug fi conseil des ministres décentralisé dootul am folklore la man damay créer ay ministres régionaux jële fi gouverneurs yi gouverneurs yi mën nañ jouer rôle boobu préfet yi ñoom ñooy diriger localité yi les ministres régionaux chaque weer président bi toog ak ñoom def ak ñoom conseil des ministres régionaux ñu wax lan moo xew sa région ba ba xam ne weer bu nekk daa xam la xew sa région ba jarul ngay dem conseil présidentiel di leen dig lu dul jeex bëri na dëkk bu ma romb ña fa nekk seen loo sa nga metti ñu kolu comme yow dañ doon seenu milliards u Macky Sall yi ñu gisul ba tey koo fa gis mi ngi kolu booba dafay seenu milliards yi baa yow si milliards yi nga doon seenu te gisuloo ko mooy dëgg gi noonu soppi doxalin bi di wax sénégalais yi lu noo def ak lu man loolu laa bëgg man lu ma wax sénégalais yi fas yéene naa ko def lu ma wax sénégalais yi incha allah man naa ko loolu laa bëgg jëfe man suma loos moom seetal moom milliards yi rek nga doon seet milliards yi rek waaw d'accord yow yow demoon nga demoon nga Casamance si tourné nga jóge nii dem nga Casamance dem nga Sédhiou dem nga Kolda dem nga dëkk yi yow yaa ngi déjà campagne électorale wa nga da nga doon xool ndax yow siiw nga foofu dama doon nemmeeku gox yi def visite de proximité te nekk na lu ma neex lu ma bég Casamance bi moom yoon bu riche la te tax na ma xam sénégalais yi ni partout dañ ma def seen xol teeru bon ma teeru Kolda ñëpp a ko gis kilifa yëpp ma gis nañ te fu ma dem damay waxtaan ak kilifa diine yi waxtaan ak waa église bi bu leen fàtte ni archevêque bi Benjamin Ndiaye moo ma jëkk recevoir jàgg na ba may toog tàmbali rek ma waxtaan ak moom ñaari waxtu partout dem naa ba am mbégte wu Casamance ma dajeeg ci ñi gën a mag si membre du MFDC ñu toog waxtaan si jàmm ji war ñëw Casamance ma wax leen ban xam-xam laa am si jàmm ji ñoom ñu xam ni man yàgg naa dugal sama loxo si biir jàmm si Casamance bu leen fàtte ni man maa doon waxtaan ak Kourma Sané fexe woon ba ñu doon waaj signé accord de paix am lu ko yàq intermédiaire yi ñoo yàq ñoo ko yàq moo tax dootul am intermédiaire. mooy maanaam monsieur Casamance. waaw non du monsieur Casamance jam si intermédiaire officier yi ñoo ëpp téeméer yoon. man maay wax ak Salif Sadio man maay wax ak diw maay wax ak diw ñu jox la moyen jox la lépp nga yaakaar ni yaa ngi ko fa jëmale sa poste la jëm léegi damay créer organe étatique boo xam ni mooy wax ak ñoom mais man maay jëkk dajale ñëpp bañ naa ba nangu naa leen fekk sa biir Ziguinchor. ñaari fan yoo xam ni damay woo acteurs yëpp jox leen garantie ni benn jafe-jafe du am. mais loolu Maître Wade defoon na ko ak ay journée de la paix. mais mais yooyu dañ ko yàq après dañ ko yàq xam nga. du xam nga xam nga du lu nu defoon ba pare rek doo ko def. Mm. Maître Wade defoon na ko waaye si gannaaw dafa bëri ay intermédiaire mm. ñu nga xam ni seen njëriñu bopp rek a leen intéressé ñoo yàq Casamance bi mais dama wax ni li ma def Casamance vraiment bëgg naa si. dem naa si àll yi gën a sol gis naa kilifa diine yi gën a kawe rawatina waa église bi dem naa fa mu gën xóoti si biir Casamance waxtu wi nekk circulé naa dem naa Bignona dem naa Oussouye dem naa Sédhiou dem naa Kolda maa ngi sant bu baax waa ussu di sant bu baax waa MFDC yi nga xam ne nangu nañu daje te am defal nañ ma fa bés bu rëy boo xam ne ñu ngi ko tuddee journée de la paix man la ñu jëloon def ma parrain de la journée parce que la ma doon liggéey si jàmm am Casamance jox ma fa prix bu mag kon wax dëgg yàlla foofu am naa fa ndam yemuma foofu de dem na ay dëkk yu bëri si diggante bi maa ngi wër gox goxaan yëpp pour déglu Sénégalais yi seet lan mooy faj seen soxla seet aussi nan leen gisee sama candidature mais koo gis gi nag dafay rafetlu sama candidature ma am preuve ni Sénégalais yi dañ ma dugal seen biir xol démb te tey loolu moo ma may ndam li ma am te di tàllal sama loxo borom bi ndam loolu continuer ba ëllëg sénégalais yi désigné ma comme étant le cinquième président du Sénégal su neexee yàlla bi ngay dem Casamance avion nga jël de avion nga jël alors bul fàtte nag bi yoon xam naa balaa nga fay demaat mën nga jël sa oto dox si benn pont bu bees bi. xanaa loolu nag xanaa loolu nag di nga di nga di nga tàccul di nga tàccul président Macky Sall. mais pont bi lu am solo la mais danaa si dellu si. soo gisee ñu jël avion da ngay gagner du temps parce que même pont bi soo ko jëlee daa perdre lu mu bon bon benn journée te campagne bés boo perte doo ko gañewaat pont bi nag jarul tëgg dënn man maa signé accord yëpp. yow mii man mii maa ko signé sonn si lool. waa Gàmbi ñu ngi may dégg ñaata yoon laa dem Gàmbi mooy maay ministre bi nga xam ni si diir gi ma nekk ministre boo jël si ministre des affaires étrangères si Sénégal ba mu amee ba tey si diiru ña ñetti at maay ko fa ëpp tànk parce que tey su ma waxee président Yaya Jammeh mu dem nu yàq xelam mu woowaat ma ni ma ma dikk dama say génn ministre am woo ma ni ma président mi neen dootuñu signé lii si signé lay may demaat di wax ak moom ba mu nangu wax ni que li noo li wax tegul fenn ñun aussi ñoo déposé woon requête bi yónnee ko BAD pour BAD bu leen fàtte ni président Wade mooy ki nga xam ne moo liggéey ba ni BAD na nga dugal sa loxo si infrastructure yi war am Afrique mm. lii mi ngi am si déjà projet NEPAD yi si kaw loolu la ñu tàllaloon suñu loxo BAD ba mu financé ko ba mu nangu financé ko lu desoon rek moo doon ñaari parti yi d'abord nangu kan mooy gérer pont bi ñu wax jamono yooyu lañ ko wax ba mu d'accord ni bi mooy gérer pont bi mais nag tey man dama am mbetteel mu rëy ndax man pont bi ma doon wax mooy pont boo xam ni oto yu mag yeeg oto yu ndaw yëpp daan fa man jàll yanu ay bagage yu bëri mën ko jëmale Casamance wala man jële Casamance bagage yu bëri jëmale ko si yeneen gox-goxu Sénégal yi tey nit ma pont bi oto yu ndaw rek la mën jël loolu jaaxal na ma ba génne naa benn communiqué ak benn bataaxal wax ni bëgg naa président Macky Sall leeral loolu sénégalais yi kon li nga wax si pont bi wax dëgg yàlla jarul tëgg dënn danga nga ñëw fekk loo xam ni togg nañ ka lenn moo desoon mooy li noo wax nga baaral baaral ceeb bi ëpp ko rek mu ñor nga ñàkk ka pont bi daal ñang ñang la sant déedéet Wade la sant Ablaye Wade moo moo doxal lépp Ablaye Wade moo doxal lépp man nekk moo woon dul man man nekk moo waaw man nekk ngénte nee naa la xam nga soxna yi sunoo togg ceeb su nu demee ba toog da léegi damay baaral baaral mooy su ma ko ubbee rek su ma ko ubbee dafay ñor su ñoree nga jël ka nga yàq ka séddale ka moom foofu la tombé woon dafa des woon lu noo xam nga bokk ak ka nga xam ni moo jël ay jënam waas ka dëgg ay légumam ñu lu ñu lu gëm def yëpp tël këriñam tàngal ba mu dese ñor ñëw nga baaral ceeb rek bëgg tëgg dënn waay jarul tëgg dënn waay day xam nga loolu waay xam nañu mën nañu mën nañu dese ci Casamance benn laaj foofu rek waaw mooy wax nga léegi ni da ngaa bëgg jàmm dellu si waaye ci biir wax bi euh, dama lay laaj ndax da ngay waxtaan ak ministre Saliou Sadio boo gisee may laaj laaj bi daa am lenn ci militaires yi soldats yi ñu ne ñoom Saliou Sadio dañ ko boole ci seen dara ndax eh, maanaam dafa rey yi ci biir Casamance loolu tamit mu ngi ci ak loxoom kooku ndax da ngeen di waxtaan ak moom wala da ngeen koy bedd xam nga soo bëggee jaamu door door di indi ay jafe-jafe man maa wax président waa te mu topp ma Kourouma Sané bu leen fànte ni mandat d'arrêt international la woon ma ni que fexe ba bakkan ba ñu ti tuur fexe ba jàmm am Casamance ba waa Casamance mën dund na mu waree war na nañu fexe loolu mën fexe ba loolu am nan ko fexe nanu nangu waxtaan ak ñëpp sooy commencé du ma waxtaan ak kii du waxtaan ak kale doo dem fenn te Salif saajo ñëpp a xam ni am na cër bu mu fi am am na mbooloo mu bari mu ko topp gis nga su geer amee jafe-jafe am ñuy discuter toog sa taabal bi di fexe jàmm am bëri na ñoo xam ne am na loo xam ni mën nga wax ni lii ñoo ko def si ñaaw teef sa teewul da ngay waxtaan ak ñoom jàmm moom su xasee ba am fexeel ba ñëpp toog ba jàmm am combien de fois la fi Abdou Diouf génneen ñoo xam ni dañu wax ni euh, dañ leen waroon yóbbu cour d'assises combien de fois la am ñu génn leen amnistier leen assemblée nationale amnistier leen ñu dem parce que li noo wax jàmm amul jàmm amul njëg man loolu laa xam ba ma ni jàmm amul njëg naa naa def projet de société bu mu tuddee jàmm ak xéewal Sénégal lenn ko jig mooy jàmm du fitna gi nu président Macky Sall bëgg yóbbu jàmm rek moo man jig Sénégal loolu tax man sama projet di jàmm ak xéewal gannaaw jàmm ak xéewal maître sànq da nga wax lu attiré sama attention mu di danga nga ragal gàcce maanaam wax loo xamante ne euh, ëllëg dañu naan la yaa ko diggoon wala yaa ko waxoon te mu weddi muy indiwaat ñu ci suñuy valeur maanaam jom kersa fulla waaye itam dëggu loolu lan nga ñu ciy tegal. ci oh, man loolu rek ci wax nga ma lu bëgg lool yàlla ma yàlla dimbali. Euh, rek di nekk si man jom. kersa fulla yooyu moom wax dëgg yàlla yàlla ma yàlla dimbali lu ma ñaan yàlla. moo jiitu sax alal ji may ñaan yàlla mooy jiitu naataange gu ma ñaan yàlla tey lu may jëkk def mooy fexe ba état bi si boppam mooy wane valeur yooyu jaadootul benn état bi signé ay engagement te doo ko respecté jaadootul ñuy jaay doole sénégalais yi jaadootul ñu gëy ñu jël yoon di ko utiliser pour damm loxo koo xam ni àndul ak yow jaadootul ñu def lépp loo xam ne dafay tebbi góor day tebbi kersa day tebbi jom loolu na nguur gi man bañ naa ba nee naa sama biir sama candidature candidature boo xam ni dafay jël di yëkkatiwaat valeur yi ñu xañ sénégalais yi gis nga léegi sénégalais yi ni ñu mel wax ju ñaaw dafa yomb sénégalais yi te waxal ko sa morom dafa yomb man koo waxal wax ju ñaaw du la tontu damay ñaan yàlla soppi la man jom dama ko gëm ak ngor gis nga ngor ku ko amul ba pare bëgg wax la ni la jullit la bëgg wax la ni la murit la wala leneen la ni ko doo jullit doo murit moo tax man mënuma doon ma dikke am ngor gi ma nekk si man may woote ni jullit laa woote ni murit laa ba pare dem di dem dem sama candidature beneen euh, keneen di euh, keneen jël di ko téléguidé booba man wax dëgg yàlla war naa sama bopp war naa sénégalais yi te nag xaw ma nu noo waree valeur yooyu noo liggéey la moo tax toujours ma ni Thierno Alassane Thierno Alassane Sall su fekkoon ni woon moom tudde na tudde na parti am république des valeurs ëllëg su ma amee parti loolu laa koy tuddee république des valeurs wala mu tuddee que simplement le mouvement pour la préservation de nos valeurs parce que valeur moom la ñu piétiner Sénégal valeur jiituwul si yoon kenn gëmatu ko valeur juutuwul si nga jël nguur gi di ko jëfe nam la neexe ñu koy paacoo di ko bokk ak samay xarit samay samay doom samay nangam ak nangam loolu dafa war jug Sénégal waaw valeur weesuwul li xew Sénégal yëpp te nit ñi di ko jàmbat bés bi nekk nga dégg benn scandale boo xam ni doo xam nan lay demee te dara du si topp yooyu yëpp nag dafa war jug Sénégal jëlee fa transhumance ndax ba tey ci liy teqatal sunuy valeur la bokk euh, man de su ma fi toogee moom transhumance kenn du gis ma dikkee ni mi ngee dox pour nit ñëw bàyyi fa mu nekk bàyyi ko ñëw fekk si ko kooku moom dana nekk loo xam ni du lu may favoriser mais nag kenn du dugg si langue politique ni ay nit décidé na ñëw ni daal ma jàppale man doo ma jàppale kon kenn mësu ko si làngu politique mais nag bëgg naa kamay jàppale mu doon koo xam ni nit ko am valeur la man daal encouragé wu ma danaa leen ko du ma encouragé transhumant du ma jël alal comme ñoom ni ñu koy defee di jënd ay nit di leen bàyyiloo fa nu nekk rien que yaakaar na ni loolu mooy tax ñu gagné élection kon ñun ñu gagné élection ñu gagné. Ah, suñu table gis nga suñu table des ministres dama toog benn jour di seet. ñan ñoo bokkuloon si Ablaye Wade ak ñan ñoo fi waxoon Ablaye Wade moo baax mu am xol bu rafet ñan ñoo fa toogoon di wax loo xam ni di wax wax ju ñaaw jëmale ko si Ablaye Wade bëri woon na trop kon ñooñu ñëpp dañu transhumé woon dañu transhumé woon man nag loolu su fekkoon ni loolu mooy gañeloo nguur Ablaye Wade kenn du ko gàññee man daal defe naa ni benn voix nga am pour toog si Sénégal mooy nga doxal yoon faj soxla Sénégalais yor yor bu rafet soo ko defee kenn du la mënal dara amul benn lobby bu lay mënal dara te ëllëg soo nee sénégalais yi dama bëgg ngeen dolli ma ma defaat yeneen juróomi at sénégalais yi daan si ànd mais soo gisee coono yi nga xam ne président Macky sàll yëpp di ko def wóor na ni ko génn na si xolu sénégalais yu bëri ndax defin woo xam ni kenn rafet bu wu ko loolu nag valeur ay valeur la piétiner valeur yi soo ko piétiner rek sénégalais yi dootuñu dootu dañ lay xool ba pare tiit jot na Sénégal am jàmm tey ki nekk sa fit a ngi rëcc doo fan la Sénégal jëm ndax fi mu yóbbu Sénégal mësu fa am kenn mësul nekk ah à à moins de quarante jours des élections te kenn d'accord si ni élections yi war doxale xam nga ni loolu jaaduwul su réew mu man ne Sénégal. loolu gëj na am depuis 1982. justement justement yow ku ne maître Madické Niang rek sa xel day daal di dem si yoon maanaam si justice. yow tey euh, nekk nekk nekkoon nga ministre la justice je crois d'ailleurs alors tey bu la yàlla dénkoon réew mi au soir du 24 février lan mooy changer justice bi. justice moom dama ko gëm te ba ma nekkee justice laa ko si noo xam ni dama fexe ba justice indépendance am gën dëggu. dama bëgg indi ay sop ay coppite yu bëri président de la république dootul jiite conseil supérieur de la magistrature jeex na dootul ame biir palais jeex na danaa ko réformer danaa ko démocratiser ba conseil supérieur boobu dara du fa mën jëlee ëllëg bay doon gàllankoor si bay taa bi bay doon gàllankoor si indépendance am dootul ku la ëmbal sànqal nga ëmbal ko suturaam déedéet loolu dafay deñ loolu daan ko dindi dañ koy réformer démocratiser ko cour des comptes président de la république dootu ko jiite conseil supérieur de la cour des comptes déedéet danoo seet waxtaan ak acteurs yi seet nan la ñaari organes yooyu di tëralee ci biir justice réforme yu bëri dana am ba dara dootul gàllankoor indépendance su magistrature dama ne justice dafa am doole si réew réew mu amul justice lu dese population yi mooy jug fayul seen bopp te loolu dafa dangereux soo demee ba kenn gëmatul conseil constitutionnel kenn gëmatul cour suprême ndax ñaawteef yi mu def si affaire Karim def ko si affaire Khalifa Sall kenn gëmatul cour d'appel ndax ñaawteef yi mu def lan moo des sa réew ma dara te du man rek maa ko wax de si biir UMS dégg ngeen déclaration yi mu fi génne jëmale ko si yenn magistrat yi nga xam ni ay seen nattangoo la kon loolu war nañ ko soppi justice bi danaa ko soppi danaa ko soppi ba nga xam ni yëf yi dana demee noo xam ni benn magistrat dootul am loo xam ni buum bu doon sa baat la ba doo doxal yoon magistrat warul rendre service magistrat luy liggéeye mooy atte yoon nekku fi pour rendre service te loolu mooy li nga xam ni laa bëgg wéyal ci Sénégal ba dëgg ba dëgg jib fi dëgg mën fi jib te dëgg sax fi loolu mooy dëgëral société bi mooy dëgëral démocratie. conseil conseil constitutionnel tamit parce que bu ñu waxee bu ñu waxee justice tamit conseil constitutionnel am na si wàll bu important surtout que affaire élection yëpp luy yoonal moom moo ko yore. ñu ñu ñu nemee ko ni Sénégal fii ñoom daal. chaque fois bu ñu leen jëbalee dossier ñu ne lii am suñu xam-xam magicien wala am ñu si am ñu si pexe. foofu seen compétence daan ko gën yaatal parce que li si ëpp dañ lay wax compétence ba nu yoon tegal la. dañu weesu loolu. man ñee wax cour constitutionnel la ñu bëgg mën leen déedéet hmm. noonu def conseil constitutionnel gën yaatal compétence su hmm. conseil constitutionnel te man yaakaar naa ni xam nga en France hmm. président dana nommé ay membre conseil constitutionnel te kenn indiwul coow am na ñoo xam ne sax ñu ngi jóge si parteem ñu mu nommé ñoo xam ne ay ministre am la woon woon mais ñooñu doon nañu ay nit ñoo xam ni ñu mat la doon ba kenn indiwul riir mais comme Sénégal riir gi bëri na man léegi dama bëgg indi lu bees conseil supérieur damay dem conseil constitutionnel su ma yàlla defee ma élire dama leen wax yéen ñëpp dama leen ñaan ngeen démissionné pour mm. intérêt Sénégal ma fay leen seeni i droit ñu wut conseil bu bees boo xam ni danoo élire ña fa nekk corps bi nag nan lañ leen di élire jàpp na xam-xam man defe naa ni fii nu toll ñetti pouvoir a fi nekk pouvoir législatif pouvoir exécutif législatif ak judiciaire da ngay fexe nga boole société civile wut benn corps boo xam ni dajale mbooloo mu bëri ku bëgg doon euh, membre conseil wala président wala vice président nga man leen adresse seen demande ñu ñu jël ko def élection boo xam ne day leer ñëpp ñu élire leen su leen élire kon coow dootul amati hmm. coow dootul amati <laughs> parce que dañ daan yaakaar ni kat dañ leen ngalaat hmm. ba mënuñu jëmale yoon fan ko bëggee dindi loolu man lépp lu dindi ngalaam bi dama wax nii léegi nangootuma nit di doon partisan euh, euh, euh, bokk si parti doon militant parti militant boo xam da nga bokk fa gën a kawe sa parti ba di ko fësal ba pare doon ministre de la justice di Ismaïla Madior def dama ko ñaawlu mooy dem si réunion politique génn di wax si ay affaires yoo xam ni affaire judiciaire loolu mooy wane ni ànd nu danaa fexe aussi ba ministre de l'intérieur bi dootul doon koo xam ni dafay bokk si parti fësal bokkam si parti ba te bokk sa instance yi gën a kawe sa parti ba déedéet day doon koo xam ni sénégalais la boo xam ni par par room kenn du ko kenn kenn du ko fësal ba ëllëg mu defal yoon. parce que bu leen fàtte ni mooy souveraineté nga wax foofu. ay ministère de souveraineté la parce que yooyu dañoo am doole dañoo am doole. am doole gi mooy man nekkoon naa ministre de la justice ñëpp xam ne xarit Ablaye Wade laa bokkoon mais ma suma doon bokk ma woon booba membre du comité directeur PDS laa doon jàppale mais du ma woon membre du comité directeur parce que dama gëmoon ni mënul dëppoog ma doon ministre de la justice dégg nga loolu laa gëmoon donc noonu laa bëgg ëllëg mu jox joxe bu leen fàtte ministre de l' intérieur moo yor police ministre de l' intérieur moo yor moo yor commandement territorial yooyu yëpp war na nañu fexe mu dañ parce que dañu bëgg lépp loo xam ni ëllëg mën na jur par parloo wala mën na yàq xolu sénégalais yi si loo xam ni ñëpp a ko bokk te mu war aw yoon man loolu dama koy dindi teg fale moo tax may dindi yooyu yëpp di ko teg fale waaw léegi ci sa biir waxtaan ci wàllu tubaab ni woon nga def nga benn euh, tukkib nemme ko ci biir réew mi yaakaar naa li wal fajir def yeneen télévision def ko maanaam wane ni baykat yi sonn nañ bay def mbapat jël seen gerte di ko xëy di ko jaay ci luuma yi ngir faj maanaam togg añ wala seen doom ju feebar loolu yaakaar na métti na xool Sénégal yëpp ba lan lan nga yaakaar ne moo koy faj. te le président Macky Sall la jëkk fës. Hmm. moom moo fi waxoon ñëpp di dégg si discours yi mu jëkk def ni agriculture lay jëkk wane réussite am fa lay jaar pour développer Sénégal euh, euh, Sénégal te ñëpp xam na ni tey suñ demee ba gars yi di dem si ay luuma ak di mbapat booba développé wul Sénégal daf leen teg fitna loolu nag. man danaa ko faj nan laa koy fajee mooy modernisation de l' agriculture li may jëkk def modernisation de l' agriculture du ay matériel agricole kese gis nga moom fu mu toll dafay dem jëndi ay tracteur ñi nga xam ñoo nu indil tracteur mën naa leen wax nanu créer fii ay usine de montage ay usine de distribution même suñ ko waree mën fabriquer Sénégal ñu fabriquer que loolu dana tax Sénégal yi am liggéey te dana mën tax yi fi gën yomb ñaareel bi mooy fexe ndox am fépp xalaat naa ne armée bi wax naa leen mën utiliser jox leen doole ñu def ay route ñu xëcc ndox fexe ba sénégalais yi di bay noor di bay nawet yooyu yëpp ay xalaat la yamul foofu parce que soo jëlee jël gerte képp di ko jaay soo gisee gerte gi lamb wala gaa yi di ko bazar di suluma yi parce que xamuñu lu noo def gerte gi fexeel nga defar leen ay unité de transformation ay PMI ak nu mu man toll tey ñu mën jël gerte gi génn si dëwlin génn si saabu génn si leneen ak leneen loo xam ni ëllëg gerte googu dana jur lu ëpp lan ko doon jaaye loolu yëpp amul suñu agriculture Casamance soo demee lanoo produire mi ngi nëpp fexeel ba partout dëkk lu mu sori sori mu am unité de transformation waxoon naa leen ni leen dëkk yi gox goxaan yi danaa leen jox dotation spéciale boo xam ne cinq cent millions la ba un milliard cinq ñu man fexe ndox am fexe électricité am centre de santé am dispensaire am waaye fexe aussi ñu am unité de transformation boo xam ni euh, lu nit ñi bay daan ko mën utiliser foofu jigéenu Touba yi segal nañu ba sonn ñenn ñi sonn nañ si ay moulin à mil ñi ngi sonn ay moulin à mille ak ak machine segal kooku wax dëgg yàlla euh, nekk na fii ak ñaar fukki at wala fanweeri at ñu koy mën di tudd nag war na nañu weesu mu lee en mille bañoon nañu ba ab Abdou Diouf dafa daan euh, Abdoulaye dafa daan tooñal Abdou Diouf monsieur et madame mu lee en mille tey nag war nañ ko weesu def ay unité de transformation loolu nag moom laa gëm di si liggéey pour jëmale kanam agriculture mais soo bàyyi agriculture kese te boolewuloo kaat ay industrie ay unité de transformation yoo xam ni danoo jël li nu li nu bay di ko mën transformer si ay produits yoo xam ni moom la noo soxla doo jëmee fenn agriculture. pourtant nag pourtant président Macky Sall bëri na ay euh, structures yu mu créé comme ay Prodac ay euh, DER ay euh, Puma ay CMU xanaa yooyu yëpp. mais xam nga yooyu yëpp yooyu yëpp li si ëpp. dafa doon ay tur rek la dafa doon ay tur. te li gën a do garaaw am na loo xam ni daf ko. jël di ko jëfandikoo te politique rek tax ka jug. deer politique rek a ko jox tax. ban deer deer deer waaye itam xam nga Macky Sall nekk juróom benn at si réew mi foxul yi am liggéey mu toog ba mu neex la ni ah, man juróom benn fajo fajuma soxla yi léegi naa def entrepreneuriat rapide su ma wutee car rapide xëy na <laughs> nit ñi daanu gaaw àgg fanu àgg mu jël wutul mu jël car rapide jëmale ko si ay nitam tey defal situation deer daa seen ni xaalis bi mu ngi si ay loxo yoo xam ñii si ëpp ay militant euh, ay militant APR lan wala ay militant Benno Bokk Yaakaar am nga si firnde am naa firnde yu bëri am na ñoo xam ni jox ah, am na ñoo xam ñi dama lay wax firnde bi am ñoo xam dañ ma bëgg fekk si parce que sama xol ma seen xol bi maa si nekk mais dan ma wax ni ma ah man di jox na woon na ma vingt millions si DER bi de nu may def ak vingt millions yi mbaa <laughs> mbaa su la yàlla mayee nga toog si réew mi daa ma remboursé vingt millions bi baal kenn du ma ko laaj léegi man naa war si yàlla bëri na ñu ma ko wax te kuy seetaan fii dama lay wax ni la xaalisu nguur ah. dama ne la xaalisu nguur gi du xaalisu Macky ah, Sall ah, ñëwal fekk si ma ëllëg nga liggéey fay xaalis boobu nguur gee ko moom bourse familiale yi nag hmm. bourse familiale yi xam nga ni nag loolu aussi Macky Sall day xont Sénégalais <laughs> man xar ma nekk sama kër maa ngi wax werante amul yow ku nekk Dakar am xar mu mag hmm. ba ko dundal lu mu tuuti tuuti par weer daa si ñàkk ban cinq mille moom mu jël ban cinq mille di ko séddale ay famille kooku xont la te man bëgguma jël sénégalais waaye tuuti moo gën leen président xoola tuuti moo waaye tuuti moo gën leen loolu fajul soxla ah, sénégalais yi doo leen may jëm hmm. da nga leen di jàngal nu nu nappee hmm. na dem fekk famille yoo xam dañu néew doole mu fexe xale yi ñu jox leen ay moyen pour ñu jàng ma généraliser bourse bi ki nga xam ni jàngul nga fexe ba jàngal ko métier hmm. former ko jàppale ko mu liggéey métier boobu famille boo gis su amee kenn ko am liggéey rek dana fexe famille boobu dana jóge si ay jafe-jafe waaye bëgg di leen xont comme nu noo xonte xar <laughs> loolu duñ dem fenn dama lay wax pour wane ni réussirul si loolu yoonu yokkute dafa ne woon deux cent cinquante mille famille lay génne si pauvreté jox leen bourse sociale mu dem ba deux mille dix-huit daaw si budget national bi mu ni quatre cent famille lay def kon nga xam ne dafa yokk soo sootee quatre cent mille famille nga jël famille bi nekk nga ni dix personnes la quatre millions de sénégalais tey ñu ngi si jafe-jafe si ndóol gu metti ku leen ko teg régime bi dañu tële mënuñ jëmale Sénégal fenn loolu moo leen ko teg moo tax ma bëgg faj loolu man duma koy maye jën dama bëgg Sénégal yëpp xam ni man sa bopp mooy nga jàng liggéey man sa bopp mooy nga jàng métier man sa bopp ngooy mooy nga fajal sa bopp nga ñaq jariñu ku ko def ki nekk man jariñu loolu mooy sama bëgg-bëgg danaa leen dimbali nag pour ngeen pour nu man seen bopp te dama bëgg keneen nga tànnal sa bopp sa métier man tey gis naa loo xam ni kontaan naa bi may ñëw fii gise ni gis ni formé nañu ay mille cinq cent jeunes yoo xam ni mën nañ intervenir dans le métier de la euh, du bâtiment mm. loolu su ko teeloon def jël sénégalais yëpp jëmale leen foofu xale yi daanu am liggéey ñii daanu mën doon entrepreneur moom seen entreprise bu ndaw ñii daanu man def lii mais dañu jël xaalis bi di ko séddale ñi si ëpp doon seen militant ñi si ëpp parce que lu tax ñu soxla bourse familiale moo doon seen baas bi doon def pour joxe seen i carte d'identité borom bourse familiale teel nañ leen jox carte d'identité parce que dafa gëm ni dañ koy votel te lu réew mi la leen jox nanu bàyyi alalu réew mi noo sëddale nanu jàppale nit ñi ba nu am liggéey ba nu mën liggéey ba nu mënal seen bopp ku mënul sa bopp doo mën jaamu yàlla sax man dama bëgg sénégalais yi man seen bopp loolu mooy sama bëgg-bëgg wàllu man seen bopp ak yorinu alalu réew mi maître am nañ fi nag lu fi jébbi muy pétrole ak gaz njiiti réew bi ñuy fal 2019 mu ngi koy xaar lool ci nan la koy séddale séddale bi bala nga koy wax contrat yi daan ko seet waaye bëgguma compagnie yi nekk si dëkk bi di wax ëllëg Sénégal kenn jaratu ko wóolu ñoom it aussi foog faut ñu xam ni ñun il faut ñu seet suñu njariñ te waxtaankat kat contrat mën ki ko signé dem ba sa biir am yoo xam ni kenn jëlu ko woon si biir contrat bi ki nga signal contrat bi ngeen ko kaay ñu waxtaan te njëriñ rek lal ka mooy mu xam ni intérêt mooy mu wéy di liggéey si réew mi mu nangu waxtaan wi ba ëllëg ñu d'accord loolu mooy premier point bi kenn du nationaliser man du ma nationaliser hmm. déedéet libéral waaw libéral la du ma nationaliser dégg nga libéral du nationaliser libéral day fexe ba li noo séddale sénégalais yi am si seen wàll Macky Sall li mu séddale li nekk si ay richesse ñu nekk si réew mi lépp dafa génn réew mi dara toogul ci réew mi moo tax amul création d'entreprise privé bi sonn coono bi nu sonn dégguloo li ko bay di añ wax bi mu koy wax dafay wax ni gouvernement dafa war bëgg privé am man nag danaa leen bëgg nan laa leen bëggee danaa leen jàppale ba projet yu bëri seen loxo nekk si su suñu amul moyen yuñ ko defee ma jox ma jàppale leen jox leen ay garantie ba banque yi man leen jox moyen yu nu nekk ay partenaire nekk ay associé si biir projet yooyu soo ko defee nga man jëmale kanam si biir su pétrole yi li si ëpp danaa ko jox éducation bi dama bëgg Sénégal éducation les filières scientifiques jëm kanam il faut Sénégal ëllëg mu man adhérer à l'innovation technologique mooy ñu àgg foo xam ni daanu man defaral sunu bopp matériel bu nu bëgg di ko produire tey réewu Asie yi di Corée ak feneen lenn tax ñu agsi fi ñu agsi mooy li ñu maîtriser l'innovation technologique loolu nanu fexe ba filière scientifique yi jëm kanam danaa leen jàppale bu baax a baax jox leen un traitement spécial su ma indee généralisation de la bourse danaa jël ay fonds benn bi maa ngi ko si ndaw ñi pour yokk formation bi jàngaloo leen métier jox leen ay moyen yoo xam ni daanu liggéey projet boobu loolu moo koy tax ju même entrepreneuriat des jeunes wut ay jeunes yoo xam ni mokkal nañ luñ doon mën nañ dem tey bay mën nañ doon am ay ferme agricole nga financé leen ñu liggéey fond boobu dana ko réglé fond bi dana réglé jigéen ñi xam nga jigéen ñi microcrédit la noo dundee fu ma ko waxee nit ñi ree microcrédit mooy comp Macky Sall dafa leen di compal man nag duma leen compal dama leen di sëqal dama leen di tibbal jox leen fond boo xam ni hmm. daanu man seen bopp liggéey ba nga xam ni ëllëg du dundee du ñu dundee ay ay comp danoo am lu nu liggéey dëgg-dëgg ba ay bénéfice yu mag man si génn ba nu man seen bopp ëllëg yii yëpp lu ma xalaat la mais xaalis boobu fi ma koy jële pétrole baa ngi fi fu ma koy jële mooy bu leen fàtte ni nee naa damay supprimer lu mu bon bon danaa def économie quatorze milliards boo xam ne danaa ko jële si supprimer conseil économique ah, ah, ah, social et environnemental supprimer HCT supprimer commission du dialogue des territoires supprimer yu bëri assemblée nationale doy na sëkk réduire le train de vie de l'état di wër réew mi rek di wax may def conseil de conseil des ministres décentralisé di leen dig ay milliards yoo xam ni gars yaa ngi seenu ba seen loof metti koo si gis mi ngi kollu ne store parce que booba dundoon seenu milliards yi loolu moo war jug Sénégal damay fexe am ay ministres régionaux yoo xam ni weer wu nekk danaa leen dajale ñu ñëw liggéey si région yi seet lan moo manqué sa région ma lan moo war sa région ba yooyu yëpp suñ ko gëstoo Sénégal day jëm kanam nu mu gën yombe te Sénégal bi na gis sa bopp si biir Sénégal. léegi léegi plan Sénégal émergent mu ngi fi de. waaw xam nga plan Sénégal émergent kooku daanu xoolaat yëf yi parce que plan boobu man mosuma gis li dal président Macky Sall foog ñu xoolaat ko parce que nag du ma nekk koo xam ne dama doon nihiliste daara baaxul kooku du ma du ma ko koy wax. dinaa seet li baax nee naa leen séyum yu am na lu baax am na lu bon mooy. dugalul xaalis bu wax pour ne pas mu gàllankoor structure de santé yi man dama bëgg la santé partout ñu def partout ay unité de santé waaye bëgg naa aussi sénégalais bi nekk soo bëggee faju nga faju waaye lu jiitu faju bi loolu am na solo ma wax ko yi dinaa fexe ba condition d'hygiène yi ni il faut ñu fexe sénégalais yi seen milieu yi noo dëkk ak fi noo nekk ñu wàññi li nga xam ni moo am tey si réew bi foo tollu réew mi am jafe-jafe ndax condition d'hygiène yi aussi il ñu seet ni noo dunde si Sénégal su fekkee ni dund mi mën na jéeg mën na jur gi yaram lépp lu jë indi wér di yaram ñu dindi ko moom laay wax hygiène prévention santé ñett ñooñu lay boole ñu jëfe ko pour Séné pour jëme Sénégalais yi kanam kon wax dëgg yàlla jàpp leen ni xam nañu fa nu jëm yàlla may nanu yàgg nañu ci état dix ans de ministère ministère technique yi fa la ñu jëkke ba ñëw ministère de souveraineté yi mën nañu jëmale Sénégal fa Sénégalais yi bëgg dama tëju woon làqu di jàng jàng naa ba ni ar mokkal naa mën naa tëri su ma tëree daal mokkal ma yaa waaw fi ñu nekk nii ku ne xam ne ne syndicat yi ñu ngi yëngu-yëngal te it boo seetee ci njàngale mu kawe mi ñu doon fayal barki démb Ndiaye rek lañ jël si wax dañu ne dàqoon waaw nooy def ba njàng mi xaw a non may jëkk fay si mesure d'urgence la bokk école privée bu ñu yoree daan la fayal suñ la fayee pour xale yi mën continuer njàng mais nag il faut ñu xalaat njàng mi jaadootul ñu am quatre pour cent juróom fukk si téeméer bu nekk si bachelier ñu doon des bacheliers littéraires filière filière scientifique yi laa bëgg jëkk développé hmm. danaa waxtaan ak jàngalekat yi ñu toog lu ma lan lañ leen yoreel ñu toog ba d'accord si ma jël moratoire respecté ko nit sax warul wax lu mu du respecté warul signé lu mu du respecté asamaan ah, ak état loolu daf fi jug loolu moo tax ñàkk valeur yooyu may wax dafa feeñ ci nguur man damay delloo si valeur yoo xam ni fu état waxee ni ah nguur moo wax kat kii kat lii mu wax jar na doyloo te dana ko jëfe loolu nag moo jug fii nu toll Sénégal moo tax il faut ñu fexe état bi ñu restaurer crédibilité am nit ñi mën mën gëm nguur ku mu digaale ki nekk sa xel dal man danaa wax ak enseignant yi danaa wax ak la santé danaa wax ak waa justice fépp metti fi nu toll baykat yaa ngi yuuxu santé ngi yuuxu fépp la metti moo tax jot na Sénégalais yi jële fi président Macky Sall te loolu mooy dëgg gi ma gëm. jërëjëf maître Madické Niang président coalition Madické 2019 ñu lay jaajëfal ci entretien exclusif. nga xam ne may nga ko a waawal ah oui. waaw. Ah. dama bokkal si Ablaye Wade de gisoo sama président dama mënoon sañse moo dàqoon sañse si président. moom daal école Ablaye Wade man taalibe Ablaye Wade rek man taalibe Ablaye Wade la jërëjëf. dafa yàgg ak moom ñu lay jaajëfal maître may jaajëfal bu baax Serigne Saliou Samb ak Georges Nesta Diop di jaajëfal madame la ministre Aminata Lo. ak public bi nga xam ne ñoo ngi fi ñoom grand Souleymane Thiam ak Pape Sène ak suñu sëñ bu tedd bi toog ñu ngi koy jaajëfal bu baax jaajafal équipe technique yi ñu bunge woon ci réalisation bi Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye euh, Saliou Bey waaye aussi Cheikh euh, Ahmed Tidiane Diop duñ ko fàtte benn yoon euh, duñu fàtte Ousseynou Sall duñu jaajëfal ñëpp di leen di jox rendez-vous ci beneen plateau spécial incha allah ci radio télévision bu Walfadjri la voix des cent voix